voilà très bien donc euh, on se souvient Céline Dion né le 30 c'est vrai aujourd'hui euh, elle est devenue euh, très amoureuse ah c'est euh, Maneso ah tey moom dafa dem fàttali démb ndax démb moo waral tey Whitney Houston aussi ñoo ngi koy fàttaliku décédée à l'âge de 48 ans mu nekkoon actrice nekkoon producteur de musique nekkoon mannequin américaine donc gis nañu les années 90 en tout cas seeni morceaux def na le tour du monde bégal na sa ñi nga xamante ne c'est des mélomanes en tout cas ñu bëgg musique bu baax a baax a donc mbokk en tout cas merci de nous

présenté ndax sénégalais yu bëri diggante Tata King Long dem dikk Sën Long Ndiaga Ndiaye taxi clando particulier ñoom ñëpp ci la ñuy euh, bokk di dégluwee euh, suba bu jot li nga xamante ne moom la ñu euh, laasana tàmm di ñu indil comme actualité tous les matins ñu ciy waxtaan ak bu baax ak ñëpp ñi nga xamante ne dañ ciy bëgg a gis seen bopp parce que xam ngeen ne actualité dafay am solo bu baax a baax donc tey laasana si c'est le pertinent dans ce matin c'est invité na nag sama benn xarit ah wala sama Euh, ancien xarit euh, ndax bu ñu waxee euh, docteur Macoumba Diouf Macoumba Diouf moom mooy directeur de l'horticulture nekk maire bu lat Latmingué bokk ci parti bu nekk au pouvoir mu di APR di ci def jéego yu am solo ndax xam nañ ko ci wàllu pertinence am mais aussi ci lépp li nga xamante ne créativité la ci wàllum horticulture mu ngi ci taxawu askan bi bu baax a baax a baax tey nag ñu am yéene waxtaan les dernières mesures prises par le chef de l'État l'inertie des apéristes artistes mais aussi ñu ànd ak Njawar borom culture borom culture bu ñëwee tous les mercredis euh, moom cause la quoi ah cause moom mercredi bu jot mu ñëw bégal ñu euh, bu baax a baax ci lépp li nga xamante ne bien sûr dafay jëm ci actualité culturelle mais aujourd'hui elle reçoit euh, Ambroise Gomis Ambroise Gomis bi nag du ñu ne xel yi bu ñu ko waxee day dem ci antenne midi dem ci génération 80 mais du Ambroise Gomis boobu nax kooku ab papa ci ñun ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ci li nga xamante ne yàgg na ko def wàllum culture démb rek maa ngi koy seetaan ah, ba ñuy def jàppason foofu ca ah, Dakar Loisir Club mu di cosaan ah, ñu ciy sargal bu baax ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tall Dioum Lemzo Jamono nag defoon na jàppason foofu noonu Ambroise Gomis moo ko présenté woon waaw DLC mooy Dakar Loisir moom mooy cosaan nekk ci Sicap Rue 10 ñu fàttaliku nag jamono ji ñu ngay waajal hommage boo xamante ne war nañ ko rendre El Maestro Lamine Faye ce sera le 27 septembre incha allah fii national Daniel Sorano bi ñu invité Euh, moom chorégraphe la day yëngu ci wàllum dance moom la euh, Njawar indi euh, donc muy la danse dans tout sa particularité ñu am yéene waxtaan ci bu baax a baax a baax ngir indil leen ci ay leeral ndax chorégraphe moom yow mën nga def ay chorégraphe kon. non ah bon. chorégraphe moom mënu ma ko. Ah moo tax ma indi Ambroise sax. mënoo yow loo mën comme ça mu jàng man xeetu fecc nga mën yow. fecc rëmtëm bi dem. mënu ma yaa asu gëy ah ci benn dara. dara. dara yow Nico. ah bon contrairement à Anna. waaw di kii nag waaye kii daf may wax ne mag mën fecc du ndam. ah mën dundam waaw waaye dégg dégg dégg daaj tamit dafa am solo. fekk bëgg naa mën nag xam temps. waaw taj <laughs> loolu moom dafa mel ni xam nga ak sa musóor. xaw ma ko tey nii nga def yaa dooj. daay wallaay man mosuma si lii lu mu doon ci sañse. <laughs> te daal da ko féexal daal. te dama ko féexal ndax la nga sol ci kaw moom ku ko xool xam ne neex na ci tàngaay lool. waaw déjà sa musóor bi tamit na nga ko dégradé moom tamit mu dooree nii ak lunette yi. di ko tey lii. ni ko mënoo maa bàyyi. maa ngi gis catu njeñ yi catu njeñ yi. <laughs> doy comme comme musóor bi. ah ak bëri. baax naa la kii ko assortir. da ko wala assortir rek. kii mais daf cee ànd ak yow de. Ah, waaw ah, blanc ah, bi waaw chemise yow tamit. saay tey moom ah. saay nànk rek. ñun gis nañ la dafa nànk xale yi ah. <laughs> gis nañ la. <laughs> borom lat may ngee ngi nii laay laa plateau bi yëpp lay wax tey gis nga tey. invité nañ koo xamante ne moom kese rek day def ce matin c'est à lu leer laa lay wax ndax. Euh, jéego yi nga xamante ne président Macky Sall def na ko 2012 à nos jours euh, moom dina ci ñëwaat mais aussi tey euh, mooy rentre des ministres. Mhm. ndax tey dina am li nga xamante ne moom la ñuy wax conseil des ministres donc ñu ciy sargal bu baax les ministres l'ensemble du gouvernement mais aussi ñu ciy sargal ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat kooku mooy monsieur Dame Diop Diop Diouba doomu Diourbel ñu ngi koy sargal bu baax di ko nuyu di nuyu njabootam foofu ca Maroc xam naa ne bi du ñàkk mu bokk ca jam ñaajo ndax moom euh, moom bureau mi foofu moom bokk na ci ñuy dem jam ñaajo tey fii la ñuy njëkk a dem ma foogoon fii ngoon la kanam waaw ah, mais mais xam nga boo. non dañuy dem présent fële ba pare. <laughs> waaw non dañuy présent fële ba pare yi dañuy dañu leen jox yi moom dossier yi tax nga mooy génn moom. <laughs> affaire nga fa la communiqué mais mën na nekk aussi ah c'est possible parce que euh, dinañu wax ci affaire euh, carcération bi accident yi inondation yi euh, tey ah tey gars yi tey président dana dana tirer les oreilles de tey moom moom xam naa du yomb benn yoon borom lat menge ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan parce que man saa yu ma la gisee rek ma xam ne du yomb waaw ah, saa la gisee rek ma xam ne du yomb day jeexal nga ne ko maa ngi ñëw mu ne la doon bàyyi ba yeggali li may wax nii <laughs> borom lat menge noo def docteur Macoumba Diouf. sant bu baax Nicolas. ça vous allez bien. ma je vais très bien. sant ah. yàlla alhamdulilah waaw. très bien kontaan naa trop ci ñëw wi si émission ce matin. Mhm. si Anou. Mhm. mais rawatina rek pour daje waat ak yow. Mhm. xam sax lu tax ngay conjugué au passé naan sama xarit woon. man moo ma jaaxal man moo ma jaaxal. <laughs> <laughs> moo jaaxal moo ma jaaxal moo ma jaaxal. yow yow ay waay lañ mës a parce que li nga wax ci ñun. Ah. ci yow la nekk ci domaine boobu ak ci 2STV bien sûr. vraiment professionnalisme bi. Mm. Euh, ku nekk gis nga ko doxalin bi. Oh. originalité ci doxalin bi c'est pour rien que rajo bi tudd origine. FM. FM tout à vraiment en tout cas man ci Sénégalais yi rafetlu bu baax. Mm-hmm. li ngeen di def. muy ci rajo muy ci télé mm-hmm. muy ci yeneen fan yi ci laa bokk te yow ci ñi animé loolu mm-hmm. nga xam ne da ngay égayer nit ñi suba teel la ñu nekk nit ñi mm-hmm. soxla la ñu nekk bonne humeur bu ñuy xëy seen oto déglu la déglu la bu ñuy bi xam ne yéex naaje tuuti télé bi fekk leen fa ñu seetaan la bon léegi avec le numérique télé mën nga ko seetaan sa biir oto. Mhm. bon voilà. page Facebook page Facebook wax nga affaire donc vraiment loolu dafa am solo ci réew. nit ñi mënuñu dëkk chaque fois ci tension. ci mhm. ci pression ci mhm. stress. loolu baaxul ci kenn. donc bien sûr tax nga sax ba ma fàttee nuyu seen téléspectateurs yu bari yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. nekk ci bitim réew ci diaspora bi. vraiment nuyu aussi. sa collègue yi ma bokkal sa confrère yi ma bokkal euh, plateau bi kontaan ci ñoom. Mhm. Euh, soxna si gis naa ne sa jigéen bu bu baax la. suñu jigéen la macha allah macha allah waaye ma waaye yàlla naa ci ëppale. waaw <laughs> ah. ah, yàlla naa ci ëppale yàlla naa ci ëppale bi moom yàlla naa ci ëppale. Ah, yàlla naa bokk ak moom plateau bi. waaw bon léegi li li nga wax ci ci man nag bi ngay introduire. Mm. dama la ci sant gërëm la ci waaye. ma wax la nag waaw maa ngi yow. yaa ma wax la nag de comme ni a xam. a xam <laughs> moom moom la 2STV ah. Mm. Euh, c'est tous les matins du lundi au vendredi gis ngeen euh, ndaanaan bi mu doon euh, ba tax na dafa ànd ak modestie ak humilité waaye liggéey kese lay def. Mm. liggéey kese waa Latmingué nga xam nañ ko bu baax a baax wàllum ñii di yëngu ci horticulture aussi xam nañ ko bu baax a baax ndax ba mu ca nekkee ba tey Euh, jiite li yu fi euh, mu ngi ciy def jéego yoo xamante ne en tout cas sénégalais yi euh, seen na ci looloo waral ñu ngi féliciter encore une fois son excellence président de la république du Sénégal muy tànn loolu noonu jiital ko ci donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc di souhaiter joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour santé bonheur prospérité succès beaucoup d'argent et les depuis foofu nga xamante ne moom la ñuy wax foofu ci hôpital SAMU muy les ñi nga xamante ne c'est des docteurs ak ñi yi nga xamante ne ñoo ngi lijjanti wàllum accueil bi ñoom ñëpp ñoo ngi ñuy bàyyi xel ndax xam nga euh, heure bi boo demee ci hôpitaux yi seen télé yi euh, dañuy jàpp 2STV mm-hmm. ndax dañ ciy gis seen bopp bu baax ci pertinence bi ngay indi waaye tamit ci euh, fulaak fayda bi nga xamante ne saa su ne nit ñi xamee nañ la ko nee nañu booy def journal nag jar na 14 milliards <laughs> ba ci ci ci kanamu écran bi baal naa la ah, ah, ah, yow nañ ngay nuyoo ci journal booy baal naa la yow Nicolas nag ma bàyyi <laughs> et puis puis et puis Nico juste signaler que ah. euh, mon invité il est sur place si on peut l'amener pour qu'il rejoigne le plateau. Ambroise Gomis waaw. Ambroise Gomis bi wuyuwul turandoo. wuyuwul turandoo de waaw te ma doon wax moom macha allah. waaw li mu def moom moo tax sax euh, jox nañu fit ñuy def li ñuy def nii. Mm. Mm. ndax bañ koy seetaan génération 80 di ko seetaan jamonoy antenne midi. Mm. mais aussi dañ ciy sargal ku ci mel ni suñu papa suñu maam Maguette Wade. ah télé variété. ah loolu tamit bokkoon na ci lu ñu doon <laughs> divertir les week-ends. waroon euh, cosaan yàgg na sur la waaw waaw jëm. <laughs> booy jamonoy ORTS. laa lay wax nii léeg nga gis ko ak ñetti abdou bi mu toog ci wetu piscine ba. moo moo moytu cee dugg nag <laughs> ah moo cee dugg am na benn clip vidéo bu ñuy wane Youssou Ndour ndeysaan. mel ni Youssou Ndour ak àll. eh waay. eh waay muy muy muy dem <laughs> te ñemewul yegg. te ñemewul yegg non du yegg. très bien donc ils sont nombreux a nous regarder merci encore de votre fidélité Yacine Diouf madame Guèye euh, la canadienne ñu koy nuyu moom tamit bu baax a baax donc léegi léegi li ñuy def mooy ànd ak yóbbalu bës bi ak euh, Dara Abdoulahi gay euh, borom yére bu verte bi nga xamante ne boobu ba tey macha allah sénégalais yi ñu ngi naan waa ji moom benn yére la am mën leen déedéet am na valise boo xamante ne suy ñëw fii. da koy diri di waaye ba tey kenn mënu koo beneen. couleur yére bi muy sol ah donc borom Makkatal Mukarram yàgg di jàppale les pèlerins ngir ñu mën a aj aj bu mucc ayib donc ñuy sant di gërëm ah, ujaaj yi ajaratu ah, yi ak alaaji asi ku ci mel ni Madina ah, madame Kanouté moom sama sajaada yegsi na ah maa ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm yóbbalu bés bi ak Abdoulahi euh, oustaz Abdoulaye Guèye c'est tout de suite mbokk suñ mbokk daara Abdoulahi Guèye moo leen di nuyu di leen ziyaare di ñaan yàlla yàlla yàlla nangul ñu suñu ajjuma nangul ñu suñu jaamu yàlla yóbbul tey bi ñaan yu solo lay def ci ajjuma ji mu nii fi fajri fi fajri yawmil jumaa allahuma jacal hadihi aljumaa tafrijan li kulli hammin wa taxqiqan li kulli amalin wa istijaaba li kulli dacwa wa raxma li kulli mayitin wa shifaa li kulli maridin wa gufraanan li kulli man qaala ya rab allahu akbar mu ngi ñaan yàlla ci fajaruk ajjuma ji day di ñaan borom bi nii yow suñu borom ajjuma ji yàlla nag ñu ko defal ajjuma muy ajjuma joo xam ni mooy faj lépp luy njàqare lu nekkoon ci ñun yàlla nag ñu ko dindil ba njàqare bi daj waaw lépp loo xamante ne njàqare la rek yàlla nag ñu ko dindil ba mu dej ci barke ajjuma ci ndax kenn ku ne am ngay njàqare yu nekk sa bopp yii mën nga koo wax yii mënoo koo wax waaye sa borom xam ne yëpp yàlla na ko suñu borom faj ci guddi ci ajjuma jii nii mu ne ñaareel bi wa taxqiqan li kulli amalin yow suñu borom maa ngi lay ñaan yàlla nag ñu defal ajjuma ji muy ajjuma goo xamante ne mooy si la suñu yëpp di concrétiser wu suñuy mébét ñu ñu doon mébét yàlla nag ñu ko ci dëggal maanaam yéene yi ñu amoon bëgg-bëgg yi ñu amoon yëpp yàlla na réaliser wu ci alti ci ajjuma ji macha allah yow suñu borom yàlla nag ñu ko defal waaye wastijaaba li kulli daawa yow suñu borom fu ngi lay ñaan yàlla na nga ko defi muy xéewal geneen mooy lan yal na nga ñu nangul suñu ñaan ci ajjuma ji yal na nga ci nangul suñu ñaan ndax suñu borom nee na ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen seen ñaan kon yàlla li ñu lay ñaan yëpp yàlla nag ñu ko nangul ci àjjuma ji waaye na nga ko defit muy yërmande ñeel képp ku faatu allahu akbar kenn ko ne am nga ay néew yaa ngi leen di ñaanal ñu ngi ñaan ci bisub àjjuma bi yow suñu borom yàlla nag ñu jéggal suñu néew yëpp yëpp yëpp yëpp suñu néew yëpp yàlla na nga leen baal seen bàkkaar suñu borom jéggal leen wooye falal leen ci barke ajjuma ji waaye it nag yàlla na doon ajjuma goo xamante ni képp ko tawatoon yàlla na ko saafara xëy na am nañu ñu ñuy wéyaale ay feebar xëy na am nañu it ñu tëdd ca lalu ya am na ñu tëdd ci kër yi tawat am na ñoo xam ne yëg nañ seen yaram wéradi yëpp yàlla na yàlla saafara leen ci barke ajjuma ji waaye mu tëj ko nag loo am solo mu ne wa xufraanan li kulli man qaala yaa rab allah yàlla yàlla na nga ko defit njéggal ñeel képp koo xamante ni kat wax na yaa rab képp ku la ñaan tàllal la loxo rek yàlla na nga ko jéggal ci barke ajjuma ji muy ñaan yu am solo yoo xamante ni mbokk mii loolu la ñu indil tey mu yóbbal yàlla nañ ko yàlla defal yàlla yàlla nangul ñu suñu ajjuma nangul ñu suñu jaamu yàlla te def ñu dëgg dëgg jullit bu leen fàtte jullit ci yonent bi waaye bu leen fàtte suuratul kahf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax kooku mooy oustaz Abdoulaye Gaye ah, mi nga xamante ne duñu tàyyi di ko rëm gërëm di ko sant bu baax ci lépp li nga xamante ne mu koy def ci wàllum diine bi ah, donc dégg nañu tey ah, yóbbal bi nga xamante ne dafay tàmm di jëriñ askan bi ak foo munti ne di ñu bàyyi xel donc léegi-léegi waa ji ñëw na ndaanaan bi yegsi na dinañ waxtaan ak moom ci carrière am waxtaan la pourquoi mu tànn def ay chorégraphie ndax Sénégal xam nañu ne fii mbalax moo fi gën a dox chorégraphe lay doon donc xam nga mbalax moom da nga naan taas mba taas taas <laughs> sa gi sa gi sa gi eh nii ah du noonu <laughs> mais mais mais mais saa yi delloo moom kii lay def du mu tudd ci gi jëng jëng ci gi jëng jëng cag ci ci xam nga affaire boobu noonu waaw demal <laughs> munoo fay da nga ko ah? teel a dagg ah da nga teel a dagg son bi yow xaaral léegi nii rek ma wan la yow yow xaaral rek yow léegi yow bu la dara ah, métti ah. on se sait non non on se connaît tu es ma préférée wallaay n'est-ce pas tu es mon préféré yow keñ xaaral rek waaw dëgg la. di magu ah, ah. baax na keneen. RJN. déedéet baax na. ah man moom ma kii ma kët ko foofu. waaw kët ko foofu ah waaw. <laughs> jaajëf. <laughs> di lakkal na ma. jaajëf ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax 8 heures passées de 22 minutes sur les antennes de la 2STV première chaîne privée culturelle du Sénégal ah, donc sans plus tarder li ñuy def mooy dañuy dem xool euh, lii nga xamante ne tey ci suba si euh, wàllum météo bi ñu xam ana naka la ñu yeewoo ak naka la ñu war a euh, ci li ñu war a sañse coton la soie la lu mu ci munti doon en tout cas ci météo bi bu ñu ci sukkandikoo rek dinañ xam naka la ñu war a def maintenant avec la météo. booy tey laa la laa lay wan ne mal ndax fekk tuut fee fuuf baabu takk nga micro bi kaay toog. mais là ñi tuuti ñu lay ñu. booy bësal beneen bi. mu ngi ñëw deuxième bouton bi. mu ngi ñëw non bee bee. bii waaw bës ko. baax na ni ko baax na mu ngi ñëw. ah yow. tàmbale ko avec capitale muy 26 degré moom la ñu yeewoo Eh, ci ngoon bi eh, foofu ca Kaolack nangaan di ci sargal waa eh, Touba Sanoxo ñoo ngi leen di sargal bu baax après 7 kilomètres de Kaolack donc ñoom si suba si yeewoo nañu ak 24 degré war a yendoo ak 30 degré ca Linguère Linguère nag boo ko waxee sa xel dina dem ci Daara Jolof sa xel dina dem ci Njaayeen Xaali waa kër Serigne Khadim Ndiaye ñoo ngi leen di sargal bu baax a baax ñoom nag ñoo ngi yeewoo ak 25 degré ci suba si war a yendoo ak 33 degré ci ngoon bi foofu ca fi nga xamante ne moom mooy euh, l'ancienne capitale du Sénégal mu nekkoon capitale AOF e nga xamante ne foofu la Ben Mokhtar dëkk euh, muy euh, l'ancien enfant de troupe nga xamante ne def na ay jéego yu am solo gis nga Ben Mokhtar nag ci loo ko woon a xola ak gaaw <laughs> boo ko woon ci civilisation mu woon na la ak moo civilisé waaye boo ko woonoon ne yow booy sëngal nga <laughs> nitu àll ni ko ah waaw yëpp yëpp laa illah mu wan la ne xoolal da ciy ba mu jeex taf na nga koy gisee mu naan waxal bonjour a euh, sais euh, les grandes heures euh, si xoolal noonu la ñàkk noonu la grave laa lay wax nii donc gis nga Saint-Louis ñoom ñoo ngi yeewoo ci 26 degré war a yendoo ak 30 degré 32 degré donc di ci sargal sama mbokk yi nekk foofu ca get Ndar nga xamante ne ndox bi ba tey moo ngay moo ngay moo ngay nangu seen i dëkkuwaay ah sama dëkk maam boobu noonu Guet Ndar ndeysaan ah waaye pexe foofu ca Podor euh, ñu sargal suñu mbokk yi bu baax euh, ci 25 degré la ñu yeewoo war a yendoo euh, ci lan 30 degré wala. dafa dafa dafa dafa plafonné de. waaw ah, waaye dañ jàpp ne 29 degré la rek. <laughs> waaw 29 degré waaw. bu ñu ca Matam ah, c'est pas 28. dafa la de wala 28. 26 wala loolu 26 en tout cas waa Podor daal en tout cas ñu ngi leen di ñu ngi leen di sargal ñu ngi leen di ñaanal ba jëkkëb jàmm. bu ñu jógee foofu ñu dem ca Matam Matam nag moom mu ngi yeewoo ci 24 degré war a yendoo ak 33 degré bu ñu demee ca Tamba ak Kounda euh, xam nga fakochère mos nga lekk fakochère yow baabu. mosoo lekk fakkachal. ngay mel ni nga xam ma ko. waaw mais gannaaw xaw ma nga xam luy loolu. bon li nga wax kenn mosuma ko gis a bàyyi déedéet mosuma ko lekk. mosoo ko lekk d' accord le chorégraphe Ambroise Gomis. voilà je suis un Casacé. mais mos nga j'ai je ah bon. Mm-hmm. <laughs> gis nga moo sa cent franc yi ni mu toll. waaw moom la def. ah boo amee bu mille franc bi nag. waaw jigo téeméer. jigo téeméer jigo téeméer. non da ngay bàyyi. ah comme dix mille lañ la jaay. maa la wax loolu. eh du ay caaxaan de. c'est Tambacounda. sérieux ah. mu yow man dem naa camp fii jamono jooju Ouskout laa woon Sainte-Thérèse bu Sik bu bu senteret ah. waaw waaw waaw waaw dund naa ko de fa ko cher. mu ne comme 10 000. muy muy dafa jéggi dayoo. neex na bëriwaay kii man laa lay nooy ñëpp. ay ay ay ay ay ay ay ay yow xam nga li ma wax. Eh, eh. boo ko xoolee xam ne lekk dafa. lekk ko cher waaw man nag gëj naa ko mos nag waaye moom ah, boo ko xoolee. waaw mos ba léegi xam ne moom mu ngi koy mos ba léegi. dellu très bien donc Tambacounda moom yendoo yeewoo na ak eh, li nga xamante ne mooy 23 ah 23 degré la yeewoo eh, war a eh, yendoo ak li nga xamante ne laasana mooy 30 degré ah laasana. waaw 30 degré très bien bu ñu demee foofu ca Kédougou moom yeewoon na 22 degré war a yendoo ak 31 degré ñu dugg foofu ca Kolda Kolda nag ñoom yeewoo nañu 23 degré war a yendoo ak 30 degré ñu jeexalee ak Cap Skirring nga xamante ne bërëb bu Bakel la euh, jamono ji sax maa ngi xool lu may def ba ba ñu may ma ma noppalu tuuti waaye euh, sama yaay nee ma yow tàmbalee gooñ ñi lay may nga noppalu yow lan ah, ma loolu daf mun ne. dara ah, xewul waaye nag Cap Skirring nag. mais war a mën a nekk de. ah benn vendredi soir ma wàcc rek. bien sûr war a mën a nekk Carabane ñibbi si euh, dimanche soir. waaw ah, xalaat de. loolu xalaat. xalaat bi mooy ñu bi mais mais plateau bi dañ ko war di ko yóbbu ay place de l'obélisque di ko yóbbu foofu ca monument de la renaissance ah, di ko yóbbu fu ñu neex yóbbu ko Carabane di ko yóbbu fu ñu neex waaw mais directeur sponsorisé ñu loolu ba ah délocalisation bi nga xamante ne saa yi ñuy délocaliser rek ñuy jox sa benn sa benn sa benn dañuy am lat menge mm-hmm. waaw mais dañuy am <laughs> directeur horticulture la c'est-à-dire saa yi ñuy délocaliser rek daf ñuy jox benn agent boo xamante ne moom day ñëw def chronique am. waaw waaw ah, waxtu horticulture sensibiliser. communiquer et tout donc voilà. ah directeur loolu bu ñu wàccee après ñu waxtaan ci. Ah, ba kenn yu nekk fii nii. yoo xamante ne boo a def. mais surtout horticulture xam nga aar la moom. waaw aar mbay la la. mbay la. Ah, donc foo ko dugal rek. gis nga du daaneel de tey ngeen tey tey man am naa deuxième baabu tey. tey tey tey baabu nee na ma joxoo ba sama kàddu laa lay wax fii. ma bëggoon poser question bi jàllul waaw te am na yoo xamante ne day ñëw nii normalement. day naturellement naturellement. ne ko mais baaw da nga koy téye waa ji daanele nga yëkkati. mais doo di kii nii waaw bàyyi def baaw waaw ni nga def xale yi ko def fii nii. lakkale. mais lakkale wu nag. Eh, baabu lu ko neex lay def. baabu kaala moo tax tey ma ne ko baaw. i faut ñu nga ñëw ñu waxtaan ci basket waaw waxtaan ci euh, transfert yi. parce que mercato bi jeex na. ñoom Mbaye Diagne am nañu ay club yu bees Sadio maane la ma gedd noonu mer foog nga wax ci. Mm-hmm. yooyu yëpp euh, c'est baabu. da koy fekkee. voilà Cap moom 24 degré la yeewoo euh, war a yendoo ak euh, ñaata la su ma demee fay laa koy 28. 28 très bien 28 degré voilà donc lii mooy seen météo du jour euh, ñu nekk ci bés bi nga xamante ne moom mooy le mercredi 4 septembre 2019 euh, donc di ci sargal képp koo xamante ne waxtu bi yaa ngi ñuy euh, bàyyi xel ñu jugee foofu dem ci taux de change xool wàllum koppar gi ana naka la tëddee euro moom soppeekuwul benn yoon moom ciment la bu xasee ba ba ba ba wow rek jeex na ah moom day tooy benn yoon wow benn yoon. et puis voilà 655. virgule 957 francs euh, CFA xam naa ne lii moom ku ci joxoon baabu moom benn 1000 euros. ah wala 2000 euros. ma jël téeméer bi rek jël téeméer bi ci waxtu bii. <laughs> barki yàlla. billaay ma joxoon téeméer jël téeméer bi. kon bu ñu la joxoon nii da nga may jox. ma joxoon téeméer jël téeméer euro. Eh, directeur loo ci mën loolu ya directeur doo jàpp ah. ñu am ndékki ah. ndékki plus ah ndékki boobu dana neex de ah baax trop. jëm 655 virgule 957 francs CFA ah, donc ñu jox ko ah, ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk yi foofu boo demee ca États-Unis pays de l'oncle Sam dëkku Donald Trump ñoom nag ñoo ngi ci ah seen xaalis bi yokku na de. Hmm. xam nga booy bi loolu doon wax ba dem bi mu toogee fi nee ñoom ñoo yor seen monnaie. Mm-hmm. ñoo ko maîtriser saa yu leen neexee ñu aj saa yu neexee ñu wàcc mm-hmm. dafa mel ni aj nañ ko 597 mm-hmm. tey jii fu ñu ah, virgule euh, francs euh, CFA Euh, bu ñu jógee ci euh, dollar américain dañuy dem ci dirham émirate moom nag moom koppare moom wax dëgg yàlla moom moo sawaru ci daar moom moo nee na boo ma ci mayoon sax sax du tax ba daal xaalis bii daal 162 virgule 574 francs euh, CFA boo leen déggee moom moo xam leen ne cadreur la benn njool la coof mais am na ab soxna te comme ñemewul aaw bi xam naa ne ñaareel moom dana jafe lool moom moo koo takk El nag ab xale la beneen cadreur la waaye xale la moom xamagul yooyu noonu bu ñu jógee ci dirham Emirates euh, Sow Mané fu ñu jëm dañuy dem ci euh, yuan Chine yuan Chine nag xaalis la boo xam dañ ko waroon dëpp waaw parce que 83 virgule 3652 francs CFA euh, foofu la euh, koppar gi euh, toll xam naa ne boo ci bëggoon yóbbu sama jigéen bii nii vacances dina bëgg waaye tamit dina xaw a hésitante tuuti. Mm. parce que xaalis bi demeewul noonu. ñi dem foofu ca Canada di sargal waa Ottawa ñi nga xamante ne ñu ngi foofu ca Québec ak ñi nekk foofu ca Montréal ba ci Sherbrooke ah, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sargal bu baax ndax sénégalais dañoo bëri jom. Mm. yàgg dañoo dem ci moomu di def ay ndam. Mm. di fa jàng jàng yu am man du wax xaalis bi ñaata la xanaa di ma bàyyi sax ma commentaire tuuti sax maa xaalis bi waxuma ñaata la dollar euh, kii bi canadien bi 448 448 ah. virgule non virgule bi moom jàpp ah virgule moom nangam. virgule cent nangam la cent ah, nangam waaw d' accord très bien. jërëjëf kon boog loolu moo nekkoon seen météo du jour ñu koy jàppale ñi nga xamante ne ñu ngi ci bureau de change yi ak ñi nga xamante ne euh, jóge nañu bitim réew mbaa ñu yónnee xaalis seeni i ay mbokk euh, bu leen kenn nax xaalis bi euh, noonu la tëddee moom nag jamono yi mu ngi foofu ca Chine elle s' appelle Fatima Silla plus de dix heures de vol la ñu def mu ànd ceeg ñoom Adama Kandé avec l' équipe ku ci mel ni Papi ñoo ngi foofu représenter le Sénégal parce que tout simplement euh, Sénégal moo doon basket foofu noonu tey nag am nañu match bu ñu war a jouer ak Canada euh, suba la suba lañ koy jouer mm. ci yàlla suba ñu gisati leneen rek ay <laughs> eh waay suba ñu gisati non suba dañu am ah? suba dañu am ndam ah Canadien yi da ngay tax seen bët ah, Canadien yi jàngal sénégalais yi ñëw fii di ko toj waay rek ak leen mën a gañ ba suba nañ leen kii de mën nañ leen ah, waaw Ah. waaw li kaale ñu parier man boole ko ñemee rek ñu parier léegi ñu ngi dem ci weer bi dee na de euh, bu ñu woowul tey woo ba gannaaw suba kaale ñu parier seen i ay sa non non sama téléphone laay teg euh, sa téléphone ngay teg boo tegee sa téléphone ma teg jeex na am njokkalaas alaaji kaay ma wax la nag man ay parier du ma ci yërëm nit de bu ma lay gagné di jaay sa téléphone mooy man mi kon maa ko yem parce que du ma la baal ba doon jooy sax du ma la baal waaw bu noonu la mel gars yi maa la a ah, ah. moom yoo xam nga ni noonu laa <laughs> kon baax na baax na euh, benn Mokhtar mooy sama seede daa bëggee ak du ma jël seede fii ci plateau parce que dañuy dañuy dañuy jàppalante seen biir ndax ñoom ñoom laa fi fekk ah, man maay nouveau ci biir kër gi euh, moomoo ci sama seede la bokk ak benn Mokhtar ak daa bëggee téléphone nga teg sa téléphone ban téléphone la. mooy téléphone boobu ah, d'accord très bien. man mënu maa wax sama téléphone ndax damay def publicité damay bañ euh, ñu tirer ma les oreilles ah parce que Ndiaye dégg naa waxtu bi da lay déglu ci rajo bi. moom rajo bi dégg naa te oto mooy mooy mooy bureau waaw lépp ci ci ci ci oto bi. 88 point 4 wax bii mu ngi déglu kon bu ma waxee kii bi te ñu kii ak Aysatu tamit xam nga dafa. waaw kon kon ñun moytu ko rek. du dëgg waaye euh, jàppal ne euh, kii nañu waaw waaw xam nga man dama bëri affaire damay ñàkk damay tëb dal rek dama ràkkaaju ah sénégalais yi xam nañ xam nañ ne damay ñàkk waaw loolu yëpp kii waaye terewul nag ay ma wax lan nag de dafa lañu ay clim fii de ay spirit yu mool ay frigo ay frigo ay frigo. non da nga ceene rek. waaw waaw dama ko jàpp fako seer bi la tudd fako seer bi gis ba la wax loolu ayca bu ko defee nag ñu dem song ki nga xamante ne moom mooy soxna Njawar mu fësalal ñu lépp li nga xamante ne moom moo gën a fës revue des titres avec les journaux locaux que nous allons démarrer aujourd'hui avec critique Njawar alors Nicolas ni ni ko waxee on démarre avec euh, critique moom mi def à sa une di wax ni Adama Gaye face au juge aujourd'hui à kit ou double la ko yéenekaay boobu dippee très bien bu ñu jógee ci critique ñu jàll ci Rewmi Quotidien Rewmi Quotidien parle de la succession de Macky bataille de positionnement entre cadres apériste Rewmi Quotidien wax na tamit ci visite bi nga xam ne kii di Ousmane Sonko mu ngi ko doon euh, bëgg amal euh, ci Adama Gaye journal bi di wax ni le doyen des ah Sonko. bu ñu jugee ci réew mi quotidien ñu jàll ci le quotidien ci boppam. le quotidien parle de chef de l'opposition et titre le statut au menu du euh, dialogue ce sera le dernier point de la discussion yi nekkaay bi it wax na ci euh, préservation des ressources naturelles aar li ñu bokk reprend sa marche vendredi. ginnaaw le quotidien ñu ànd ak l'observateur groupe Futur Média. l'observateur parle de la vue du gouvernement du euh, Sénégal sans premier ministre Macky Sall. l'omniprésent lañ ko dippe Boun Abdallah Dionne retrouve aujourd'hui son fauteuil en conseil des ministres wax nañ tamit euh, ci euh, accident de la route yi les chiffres de l'hécatombe yéenekaay bi di l'observateur joxe na ko. ginnaaw l'observateur ñu jàll ci las. laas nag dafa ñëw ci wàllum Sainte Jeanne d'Arc renvoi des élèves portant le voile. Mhm. Sainte Jeanne Sainte Jeanne d'Arc rallume la polémique loolu la yéenekaay bi xëyee tey. Euh, bu ñu jugee ci las ñu dem ci enquête. enquête bokk li mu wax euh, ak euh, las daal di wax une rentrée mouvementée à Sainte Jeanne d'Arc le voile de l'exclusion mu ngi ñuy xamal it ni ci yéenekaay bi que wàllum euh, condoléance Wade a reçu la famille de Dansokho ginnaaw enquête ñu dem ci tàggat yaram ak record record nag mu ngi ñuy euh, xamal nag ne un euh, match amical Brésil euh, Sénégal et en gestation maanaam ñu ngi waajal lu ni mel te ba mayul dana am ci weeru octobre wax nañ tamit ci mondial basket Australie Sénégal les lions les armes à la ko le record di paix. très bien ñu ngi jeexalee nag ak li nga xamante ne làmb ji moom moo ko soxal mu di sunu làmb. moom nag dafa fësal nataalu ki nga xam ne moo di ah, Balla Gaye 2 di wax ni Balla Gaye 2 dicte sa loi qu'un espoir ne mérite de m'affronter il y a une certaine logique à respecter dans l'arène Lac 2 a du potentiel pour devenir roi des arènes Bombardier est un adversaire comme tous les autres VIP Ama Baldé a fait un parcours presque similaire au mien waxtaan bu yaatu boobu la Balla Gaye amal ak waa sunu lamb. très bien du ko defee nag ñu euh, sant leen gërëm leen bu baax ci lép li nga xamante ne jot nga ko fee euh, jukki avec les journaux euh, locaux ñu tàmbalee woon ko ak critique réew mi quotidien le quotidien l' observateur las enquête record ak sunu lamb lasana en commentaire lan nga jàpp ne moo gën a fës ci revue des titres yi nga wax cee mën a commentaire. bon bokk na ci li ci gën a fës mooy euh, li enquête ak euh, las reyé muy euh, coowal voile bi ca institution mhm. Sainte Jeanne d'Arc nga mhm. xam ne juróom na fi coow mhm. du lu bees ndax ci weeru mais la ñu génnewoon benn note ne ci rentrée bi ni ñu dëgmal dafa am ay notes yoo xamante ne dañ ko boole ci seen règlement intérieur te parents yi ak élèves yëpp dañ ko war a respecté mooy lu jëm ci seen wàllu tenue mooy nu ñuy soloo parce que ñoom dañoo am ci benn kuréel boo xamante ne ci la ñu bootu kuréel boobu nag moo leen yooyu ñu ne élèves yëpp dañ ci donc nu ñuy solo seen tête dafa war a découvert ci réew moo xamante ne bon c'est constitué à plus de 95 pour cent de musulmans ba nopp ñu fi wax mbirum laïcité démb ouverture ba mu amee parce que ñoom programme français la suivre ñoo France ñuy ubbendoo bi ñu demee dañoo gis am na ay élèves yoo xamante dañoo muuru woon mhm. ñu leen génnee mhm. donte ne nag amaguñu version officielle bu waa bu bi mu nekk nag mbir moo xamante ne jur na coow loolu njëkkoon na fi jur coow ba parents yi mhm. ne loolee ñoo faree ci euh, ministère de l'éducation nationale gis nañ

France du États-Unis fii du France du États-Unis waaye école la boo xamante ne xam nañ ne ay catholique ko moom catholique yi ko moom nag ni ñu ko bëggee noonu lañ koy defee yow jullit nga wala catholique nga ngay dem di jàngi ci école bi Euh, nekkee suñu constitution dafa am lu mu wax. oui oui mais mais mais mais école bi école école école catholique la. Nicolas du école yow boo boo jugee ci Sénégal waaw boo jugee Sénégal dem réewu jàmbur. Mm-hmm. yow yaa war a ak ñooñu seen i loi ak seen mm-hmm. bu jugee feneen ñëw fii. moo war a wu ci suñuy loi ak suñuy règlement mm-hmm. laïcité la ñu wax. laïcité yow saa bi nga joxe. waaw non li nga gëm suñu constitution. constitution bi li mu wax. waaw waaw loolu la man tam su ma neexee ma ñëw ci beneen wàll. parce que mm. nekk na loo xamante ne nit ñu ñoo koy commenter aussi école publique boo fa demee li nga xamante ne moom la ñu moom moom ngay mën a charte yooyu ci moom nga mën a nekk maintenant li ñu mën rek mooy négocier parce que xam nañ ne euh, li ñuy doon def démb mooy dàq yenn ndaw ñi parce que bi ñuy def rappel dañu yi ñu muur ñu berle mm-hmm. ci loolu devant un huissier de justice ñu daal leen génnee renvoyé leen de l'école aujourd'hui en tant que euh, citoyen en tant que directeur de l'horticulture ngay euh, maire bu Latmingué jàngat bi lan la qu'en pensez-vous jërëjëf Nicolas li ma ci Lassana junj na ko léegi ak soxna Njawar ci seen réaction yi ma gis mooy dëgg la école catholique la mais dafa am ci cadre bu mu nekk ci réew mu mu nekk mhm. mu am constitution bu ko ŋànk ñëpp juboo ci école boobu du démb wala tey lañ ko créé mhm. naka jekk ay jullit ñu ngi fay jàng xëy na muuru ba xëy na yàggul mhm. waaye en tout cas naka jekk parce que réputation bi moo ko waral. mu nekk lu ñuy profiter pour saluer ko am na du sérieux ci njàngale mi am na du professionnalisme ci njàngale mi ba tax quel que soit sa diine nga bëgg sa njaboot jàngee mhm. loolu dafa waroon doy comme euh, motifu satisfaction. Mhm. kon man sama avis mooy nañu ko bu ñu bu ñu négliger nañu sauvegarder ak i réew mi am muy ci affaire dialogue islamo-chrétien nga xam ne référence la ñu. du ma ci Afrique. du ma ci Sénégal ci àdduna bi. d'accord Sénégal référence la ci. loolu dañ ko war a sauvegarder parce que euh, buntu la pour stabilité réew mi pour dalu réew mi. te gis nga lu jëm ci affaire diine euh, ak cosaan ak yu mel noonu Nicolas dafa sensible. donc bëri na xew bërëb léeg nga dégg ni suñu sëriñ si ñaan nañu c'est vrai naa nga mënu fee xew <coughs> waaye ci sama xalaat mooy bu dee dañoo continuer di bàyyi xel ci njàngale sëriñ soosu sinon pour man lépp. mën nañoo dab. kon nañu nañu nañu garder mm. euh, acquis boobu euh, euh, doxal ko. principe yeneen yu dul loolu nag. mais ñu ñu ñu dëppale ko ñoom ñu dëppoo ak loolu ñoom ña fay jàngee à part muuru bi. waaw buñ ne am na yeneen règlement parce que école bu nekk am na. Mm-hmm. nga nga mais vraiment man daal sama xalaat loolu la te aussi ñu defee ko ci dal. waaw dégg naa wax bu am solo bu lancé na wax léegi. Mm-hmm. mooy ministre bi mu ngi ci dox. Mm-hmm. man loolu laa gëm. bu nekkee moom violence verbale dañ koy appliquer. violence day nekk par force. mooy li xale yi di wax doole baab fos doole baab. waaw waaw man nag ma ci du ma ñu ñu waxee ko noonu. parce que xam nga violence muy forme bu mu munti nekk. Mm-hmm. man dama koo contre. waaw baaxul muy physique. Mm-hmm. muy verbal mooy même ci doxalin. xam nga li nga mën a am ci xëccoo. dëgg la xaaju ne nii lay amee. Mm-hmm. parce que moo yore dogal bi moom ministre bi wala nguur gi. oui noonu la mën a wooyee. d'accord ñiy tere voile bi. ak ñi bëgg a def voile. d'accord ñu toog waxtaan. ñu jubóo. très bien kon li nga mën a am ci masla am ko ci. waaw non xel mu dal am ci waxtaan. lu la réglé ko ci waxtaan lu la naxante mënul may moom doole du la ko may. am ne des mesures sax. man nañ indi euh, euh, avant interdiction voile. mën nga teg ay mesures. man nga ne tel élève su mu muuratee rang jot mu ne duma ma dend ak góor. wala boog sama place góor du fa toog élève boobu dañ koy exclure wala dañuy njëkk a convoquer ses parents il faut commencer pour moi par des mesures yoo xam ne disciplinaires yoo xam ne élève bi bu jooyee une deux ba trois mm-hmm. su ko dindee nag boobu exclusion mën na lii mais c'est tellement pertinent xam nga maa ngi leen ko doon wax non li tax ma c'est tellement <laughs> euh, mooy voile bi nga baal ma soxla njawar mm-hmm. Euh, peut-être xoolal këf ma këf njawar ba pare de indi yaar yëfa ah, waaw mandarga la rek mais effectivement comme ni mu ko waxee boo bëggee passé loolu dafa bëgg a mel ni da ngay bëgg a def loo waa école bi li sa diine di wax yëpp mhm. maanaam da nga bëgg a pratiquer loo waa école bi sa diine te mhm. loo xam nga kenn mënu ko nangu mais mais signe distinctif boobu mhm. vraiment gisuma ci benn problème surtout que nga baal ma da gis naa sax ci eh, yoonu ci yoonu catholique ay beneen xeetu voile. waaw naa ko waxee loolu. waaw damay gis maa ngi gis ci journaux yi. du ci journaux yi rek presse bi moo bëgg a wane xëy na. Mhm. fas ne voile am na voile am. day wane genre chasteté day wane genre genre. Euh, ni koy waxee yiw. d'accord euh, ay ay ay ay religieuses. ñoo ko faral di def. Mhm. Euh, xaw ma lu mu tekki xuusuma ci mais dama bëggoon na rek. nekkul lu ay ndax nit mën ko def rek pour wane vraiment ay yiwte te yiwte diine bu nekk woote na ko jërëjëf c'est ça waaw c'est comme je disais rek moi c'était ça ma pensée que ne balaa ñuy euh, def interdiction du port du bal sa laasana li mu wax dëkk boo xam ne dañ ko tëral ak euh, constitution constitution bi lii la wax nguur gi a xëj na bu ko neexee bañ a jouer carte prudence créé seen école teg ci ay charte ne ñoom nii mais kan moo leen jox kii pour ñu créer seen école xam nga li ñu leen jox ak yooyu noonu ñu xamoon mais lu bees la en fait xam nga xam nga ñoom ba pare gis nga barki démoo Ndiaye gis nga li xewoon foofu ca euh, pharmacie Ponty ah, euh, waaw jumaa jot gars yi ne dañu juma ñu indi ay sanctions donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que il faut tamit <laughs> dafay am waslu àq mais mais boobu bokkul ah, sax il faut tamit ñuy bàyyi xel. parce que fee waaw fee am na foo des na kaay wute de mm. poste. Mm. tout ñoom pour affaire booy jaay garab ak yooyu mais fii. waaw mais waxtu jumaa bu jotee xam nga ne jaay moom dagganatu. waaw mais ci ci jullit bi. waaw ci jullit bi waaw léegi bu fekkee ki ko embauché nag catholique la mm. foofu. dina am tuuti benn choc de culture. parce que mën dafay mel ni école catholique bi rek. bu nekkee dañu école catholique bi dafa indi benn qualité dafa am benn qualité d'enseignement dafa am benn rigueur dafa am benn nangam. na école musulmane yi tamit fexe ba góorgóorlu ci anam boobu noonu parce que bu ñu demee ba tey suñuy doom jullit ñu leen di dàq ci ay école catholique ndax lan parce que dañu muuru parce que dañu respecter charte bi nga xamante ne moom la diine l'islam nangu ah mais ça pose un problème maintenant pourquoi nous wala pourquoi les musulmans du ñu créer ay école yu toll ci niveau boobu parce que tey bu ñu xëyoon Sacré-Cœur def noonu looy wax. bu ñu xëyoon euh, Anne Marie Javoué def noonu loo mën a wax. bu ñu xëyoon euh, de Anne def hmm. ma bëggoon wax en bu ma mooy que ni bu fekkoon ne école bi bu ñu koy ubbi. Mhm. dañoo tëral charte yooyu ne ku fi dugg. doo muur wala doo lii. d' accord mais dañoo bàyyi école bi def des dizaines d' années. bu ñu nii école yooyu noonu du démb lañ ko créé. ay ay kii yu am ci biir. mais moo tax nag ñoom it ñu. Ah. waaw non décision la bu jugee ci kaw moo tax ñu at bu jot na jar na comme yow nit man ma ñëw si nga may jàngal euh, maanaam nga bëgg mu uta may xam-xam man ma nekk xale bu ndaw bon nga xoolee ma comme sa doom est-ce que jar na yow nga may teg ay charte naan man da nga war a muuru wala war a bëggee dimbali pour ëllëg ma doon dara mais dafa am leen loolu di fàtte école chrétienne yi en général bu ñu tàmbalee le matin li ñuy njëkk def mooy prière mais jullit bi du prier. waaw jullit bi du prier. Hmm. Hmm. mais ñoom ñoom ñoom ñoom fësal nañu seen yëf. Hmm. au devant sa à dire nee nañu ñun balaa ñuy def dara ñun dañuy prier. jullit yu bëri na même balaa ñuy lekk. waaw il waaw jullit yu bëri euh, euh, xaaral tuuti xaaral tuuti xaaral tuuti di nga ñëw léegi nii parce que jullit parce que jullit yu bëri mën nañu tari ay. Euh, je vous salue Barry notre père ndax lan mm-hmm. parce que li ñu koy tàmm di fekkee tous les jours pourquoi période boobu ñuy def notre père je vous mais ñu ñële ñu def xul wala axat def def xul onze bi rabil falaxi ak Nancy donc c'est pour dire que ñoom am na lu ñu li gëm moom la ñuy chaque jour moom la ñuy gën di véhiculer di ko gën di protéger mm-hmm. bon c'est un avis mm-hmm. euh, ñii di seetaan am nañ ci ay avis ñun ñu ñuy toog tamit dañuy joxe rek lu dul avis c'est vrai que am na ay chartes yu ñu tënk muy constitution boobu nga wax mais ci mën a. xam euh, nga ah, ah, ah, euh, man du ma ci sori tuuti quoi. parce que dañuy waxtaan rek dañuy sottante xalaat rek ça compris mm-hmm. man je suis né catholique. tout à fait je me suis converti à l'islam grâce à maman donc c'est des religions que je respecte mm-hmm. beaucoup. tout à fait donc mën ma ci sori à 100 pour cent. def nga baptême. non waaw def naa baptême. def nga communion. non def nga def nga communion. ah bon dama teel a converti à l'islam à l'âge de 9 ans. d'accord donc gis sama sama yaay di julli muy wax. c'est ça mu captif ma ci affaire boobu. Mm-hmm. ok d'accord. tout le temps buy julli dama koy toppa moom jullit la woon daal jullit la waaw. non moom jullit la elle est musulmane. comme nag dafa sëy ak sama papa. waaw waaw loolu moom la nag c'est des c'est des c'est deux religions yoo xam ne je suis et que je respecte j'ai des frères. catholiques j'ai des frères. tout à fait. ok je la la famille quoi de manière générale. j'ai l'habitude euh, comme comme mon job mon boulot tout le temps damay fréquenter école catholique yi damay fréquenter école musulmane yi. Mm. def ay cours de danse du genre. tu comprends. Mm. man daal je reviens à lu mu munti doon rek c'est la personne. Mm. c'est l'humain. tout à fait man affaire bi voilà man góobu mooy institution. góobu règle yi lañ teg. man pour man nit ku nekk ak sa xel. ak sa xol ta façon de voir les choses ta façon de penser man je respecte la personne telle qu'elle est. nga nekk musulman. ou catholique. exact nit nga nit nga avoir un bon cœur. man dundee sama life. Mhm. très bien. très bien en tout cas c'est important c'est pertinent. Euh, am na lu mu bëgg daaneel mais boo ko mënee def rek bu gaaw ah ci li nga bëggoon yokk rek. waaw xam noonu li nii. Mhm. Euh, lu tax jullit ñi mënuñu aussi créer école ak yu demee noonu. laa ne loolu day mel nii ni xale yi di woyu xale yi ne xaw ma naka jigéen ci jigéen ña góor ña ca góor ña. esprit boobu du esprit laïcité. Mm. Ah, waaw mais xam nga ñun ci ñoom la ñuy kon kon day wane ne nga tey da ngay dégg ci diine l'islam da ngay dégg ñuy wax ñi ñenn yenn kilifa yi di wax naan ah, da nga war a fexe sa doom nga jiitu ci sa doom balaa leneen di jiitu ci moom fu ñuy wax nga jiitu ci moom mooy diine bi nga xamante ne moom ngay représenté nga fexe ba mu jiitu ci maanaam nga am doom nga teel ko dugal alxuraanul karim mu dem jàngi nafar wàccee wàccee waat ñu doog a dem dugg ci école française am na ñuy def noonu mm-hmm. am na ñoo xamante dañ lay teel a dugal catéchisme nga teel a maîtriser diine bi pour ne pas mu am lu lay déséquilibré mm-hmm. après nga doog a dem ci école bi euh, française donc loolu tamit mm-hmm. il faut ñu bàyyi ci xel maintenant su may wax loolu c'est dans ce sens cest à créer ay écoles yoo xamante ne parce que aujourd'hui bu ñuy wax les écoles d'excellence c'est peut-être Limamou Laye euh, mi nga xamante ne euh, du tàyyi di def ay jéego solo mais xoolee ngay gis ne ak Mariama Ba peut-être da ne école catholique yi dañuy ay performance dañuy def ay résultats yu satisfaisants yoo xamante nit ku ne. kuy dëkk dund ci réew mi mu ngi bëgg yóbbu doomam foofu. moo xam Sacré Cœur moo xam Notre Dame moo xam Anne-Marie Javoué moo xam les Maris moo xam Stella moo xam nangam ak nangam. ba ci Jean Mermoz. d' accord donc yooyu tamit il faut ñu bàyyi rigueur boobu noonu ñooñu di def ay nit lañ. te pour pour man nit yooyu noonu ñoo nekk ci beneen diine bi. ba ba des fois sax ñi ne ay musulman sax dañ fay dem di fa jàngale. parce que ñooñu tamit gis nañ ne am nañu ay critères am nañu benn benn benn benn benn benn benn benn benn benn qualité bi. pour ñu mën a enseigné foofu léegi ñoom lu ñu ëppalee mooy beneen programme la ñu suivre boo xamante ni sukkandiku ñu benn yoon ci ñun lu ñu suivre ñun fii mën nga créer sa école bu baax mu am perturbation ci année scolaire bi grève am force yow dina impliqué wu ah, dina impacté bu bu boo xam ne d'accord kon dinañ ci ñëwaat incha allah kon kon dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat sant nañ leen gërëm nañ leen ba en tout cas je pense que c'est pertinent ci ñi ñuy seetaan ku ci nekk dina kii gis nga nag mën nga mën Sénégal gis nga mën Sénégal lii laay job jiitu lii laay xuloog manager yi Amadou da ngay invité artiste. ni ko 7 au plus tard 7 heures 30 na la fekk ci plateau bi ñuy tardé. après boo waxee ñu ne la embouteillage cest à euh, dafa amoon kii <laughs> ah mu mel ni ñun ñun dunduñu ci embouteillage wala ñun dañ nekk ci beneen plan Amadou mere naa la trop mere naa la trop voilà. voilà mere naa la lool. am sa copain voilà sama copain mooy kan. Pama. <laughs> Pama nee nañ ko gis nga grand théâtre bi nga war a def grand théâtre ñi nee nañ ko euh, ñenn ñi nee nañu grand dem ba fees del ñu koy xaar ñu ne boo amee rendez-vous 18h dañ koy rendez-vous 13h loolu moom bu yóbboo nañ ci góorgóorlu bu baax te xam ne tu tu tu à être benn international une star donc heure yi moom c'est c'est primordial dafa am am am solo. di xaa moom euh, artiste la euh, sénégalo-gambienne la parce que Tamba la juddoo. mais Gambie la gën a nekk ba ñu bëri dañu foog ne gambienne la mais sénégalaise la. donc tey mun nañ ne euh, Dixa sénégalaise gambienne la euh, mu ngi def ay affaire yu am solo ci wàllu musique elle est sexy de par la voix mais aussi de par euh, corpulence am macha allah bu ñëwee fii ci plateau bi Dixa du ñàkk ma xool kan laa ko war a mën a may ci biir kër gi parce que Dixa daal macha allah dama koy dem jëli sax après ñu maak yow dañuy chorégraphe tey cëm. Dixa ñëwal takkal lañ la micro yegg si jéggatal ñëwal Amadou mere naa trop bu ñu waxantee sept heures et demi da ngay respecté sept heures et demi sénégalais yu bëri nee nañ ma man du ma commencé waaw oh là là hmm? Hmm? nam nga ma dëgg la nam nga ma dëgg waaw yow nii nga mel waaw defal nii tournel waaw te taxawal nii yow tam nag bàyyi li nga def yow tam nag waaw tournel tournel nii jàkkaarloog nii waaw voilà caméra bàyyi la nii yow doo dem. nee na tiit lu xew. waaw nii nga mel yow. alal dëkk eh. amul bambara. fii amul bambara de fii amul bambara waaye am na ay am na saraxule ak ay jàngkatu alxuraan ñoo fi ne. waaye sa bopp bi yow yow yow yow macha allah. makan makan moo fi jaar. makan moo fi jaar waaw li nga takk sa baat baa du la xoj. non non it's okay. it's okay. waaw waaw bii nag bii mooy ban moom. bii moo tudd 2S. ah bon. 2S 2S 2S 2S 2S. maa kontaan li nga nii nag li moom xa looloo la wala. bii mooy xoolal rek. bii mooy xoolal rek. waaw daal yi nag lu mu doon. daal yi moo tudd Feeling Patch. eh Feeling Patch waaw lii yëpp ndax ce matin c'est à nous. bañ nga rek. waaw kenn du mer. kenn du mer <laughs> yow xaaral ma wala toogal sa toogaay mooy li ñu naan toogu beñee eh waaye beñe këmbax xam nga beñe këmbax ay ca toogal beñe këmbax beñe këmbax mooy beñe boobu nga xamante ne day day day ngand day day oyof day léger te ci suukar bi noonu xam nga beñe boobu xam naa ko ah? xam naa très bien eh, eh, ana sama waa ji Ambroise Gomis kaay kaay ni kaay lay lay la laa tey la ñuy def tigi tigi gi tëg tigi tigi wala baabu baabu <laughs> ah baabu xoolal ayca ñëwal gars yi ah tey dañuy def dañuy yónnee benn son nañu gars yi yónnee benn son Michael Jackson ah, ah ñoom Moustapha ñoom Ibra ñoom Mané Sow euh, nañ ñu dugalal benn affaire ah, bu ko defee léegi nii euh, ñu kii ko ñu avancé waat tuuti ñëwal nii fii fii baax na fii ah ah nee na nga dem ci moom demal ci moom voilà très bien donc gis nga waa son euh, dañu bëri affaire ndax lii yëpp 2STV la ay ndaw nag ñoo fi nee de ay xale yu ndaw yu ndaw a ndaw a ndaw mais xam bu baax li nga xamante ne euh, moom mooy seen rôle ba tax na euh, xam nañ ne 2S moo innové euh, télévision sénégalaise yi <laughs> ah. ah première télévision privée. bu RTS nekkee yaay moom lu mu doon moom papa ah cëm kon mooy seen papa ñoom ñëpp <laughs> mooy ni ko gars yi waxee yaay seen baay ah kon dëgg la kon kon dëgg ah waaw nga dëgg de parce que PCA TDS nekk PDG groupe bu toll nii c'est pas donné à tout le monde ah. ah am na ñu bëri ñu ko bëgg mais mënuñu ko am nga commencé ko ci photographie

Mbengue euh, bokk ci parti bi nekk au pouvoir mu di APR moom ba mu ciy bokk nag moom kii wul de. moom dafa cee teel dugg waaw ah, moom dafa teel dugg ci APR moom dafa teel lijjanti. waaw ah, moo tax ah? teel a gëm APR teel gëm APR. dafa teel gëm APR xam nga séeréer la. dañuy fier mais est-ce nekkoon de. ah PDS baabu baabu xam na ko de ndeke. baabu dugal na la benn kii de. li may bulet bu tàng jël. <laughs> dañ lay jox bulet bi rek nga def. non xam naa sa affaire waaye xam nga affaire ak. PDS PDS xam nga. wala ñoo bokk dégg bàyyi de ah. yegg nga ko yegg nga ci. très bien. laasana. waaw borom nga xam koy dooree ak sànq li nga xamante ne junj nga ko mooy rentrée gouvernementale bi ginnaaw vacances yi nga xam ne euh, gouvernement bi mu ngi ko doon observé ci euh, weer bii nii ñu euh, génn tey jii ni ñu war a dooraat conseil des ministres yi ak peut-être sujet yoo xamante ni intéressé na Sénégalais ñu ko doon wax inondation yi accident yi ba ci li xew ci institution Sainte Jeanne ndax jàpp nga ni tey ji sujet yooyu noonu mooy li gën a soxal askan wi gouvernement bi war ci addu pare ak addu ci jël ay mesures nii de manière théorique jël ci ay solution yoo xamante ne askan wi dinañ ci mën a gis seen bopp. jërëjëf Lassana wax nga dëgg euh, effectivement euh, rentrée bi euh, am na day symboliser retour ci liggéey bi di manière officielle la ñuy wax. Mm-hmm. waaye li may njëkk a leeral mooy liggéey bi mosul taxaw. Mm-hmm. du yéen waa presse laa koy wax parce que yéen a koy relayer activité ministres xanaa sénégal yi laa koy fàttali. def naa mën nga visiter ministres yi yu bari tey. ku ci mel ni ministre de l'agriculture professeur Moussa Baldé ñu profité pour rafetlu liggéey bu am solo bi muy def gis ngeen tournée yi mu def initiative yi mu jël bi nawet bi amee jafe-jafe ci départ bi nga xam ne président la République moo ko ko wax ci jàppale ñi nga xam ne jiwoon nañu mu mu yàqu mm. ci ñu amaat jiw amaat engrais mais loolu dem ci terrain bi moo tax mu xam ko mm. dem ba Kaolack ngaan ak fu nekk jël fa ay mesures yu am solo jëm ci ñuy def agriculture presque biologique ci décider léegi faire euh, euh, subventionner intrants organiques yi nga xam loolu mosu fi am ci mhm. ci réew mi pour que ñooñu aussi comme xeetu mbéy bu am valeur ajoutée la ñuy def ñu mun ko yaatal ku ci mel ni euh, soxna ne ne Fatoumata Tall gis nga ko mu ngi ci terrain bi vacances citoyennes ba xam ne wane na rupture bi vraiment dem ci tool yi mhm. maanaam vacances yu utile euh, vacances citoyennes bi tout vacances bi da daanaka xawoon nañ ko mën a dindi parce que ku nekk xam nga ne nekkuñu woon ci vacances au sens premier du terme ci liggéey la nekk fan yi yëpp ku nekk gis nga ko ministre Mansour Faye même chose ci affaire ndox mi Serigne Mbaye Thiam gis nga ko euh, euh, vraiment suñu frère le ministre Fofana Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme vraiment ñoom ñëpp ñu ngi ci terrain bi di dem di ñëw taxaw loolu moo wane ne vacances waxin na rek xaw ma sax nu ñu ko mënoon tuddee bu doon mën nañu ko changer tur bi sax parce que Sénégal yi moom xam na seen affaire bu ñu nee vacances rek. Mhm. au sens premier du terme. la euh, naan la comme ni ko xale bi mhm. waxee. <laughs> donc euh, euh, conseil des ministres moo amoon. pause mhm. mais liggéey bi mu ngi doon continuer li ko waral noonu la mën a demee laasana parce que fast track bi ñuy wax c'est vraiment fast track. avant l'heure lañ mës def man loolu laa wax bu dee mën bu dee om pouvait accélérer l' accélération dama naan fast track c' est accélérer l' accélération rek. defe accélérer la cadence. Mhm. du lu bees. kañ la woon. Mimi d' accord suñu sœur boobu. Euh, ancienne premier ministre ancienne garde des sceaux ministre de la justice. borom social et environnemental très bien président du conseil économique social environnemental. Mhm. xam nga loolu yàgg na. tout à fait accélérer ci wet ci yëpp accélérer moo tax tey. programme bu mel ni PUDC Nicolas umpul kenn ci Sénégal rawatina ñun waa kaw gi. bu ko président yëkkatee. mais dafa mel ni accéléré bi dafa ñu yóbbu ci ngiro de. non non yóbbuñu ci benn ngiro au contraire ñun sant yàlla bu mag lañ lañ xoolal bi PUDC ci réélection président de la république. ndax kaw gi li ñu représenté ci ci ci ci ci réew mi. mu ba ko defee waa kaw gi ñu ngi dee jamono ji ñu waxee wu waaw maa ngi ñëw maa ñëw daa ñëw ci loolu nattu fi lañ ko fekk yàlla moom mooy dogal yenn yi mais dama lay wax li nga xam ne motuwaay moo moo war nguur mu jël ko ci régime am pour wane ne bëgg naa mbir yi bar maanaam baral bi daal laa bëgg a wax jiitu na fast track loolu laa bëgg a leeral mm-hmm. ma jaar ko ci wax ji ak ci jëf-jëf ma doon jël programme bu mel ni PUDC nga xam ne ci juróomi at parce que bi nga ko yëgatee yàggul mm-hmm. jox ko plus ndax xam ni mu bëgg moom président de la république ci jamono am ñëpp di wax ne noo loolu du yoon dugg na fii génn fii lu mu indi mooy sénégalais yi ëpp ci sénégalais yi gis seen bopp waaw ak affaire PNUD ak affaire euh, ay marché public ak yooyu lan moo ëpp doole sénégalais yi ak ak ak transparence boobu ñuy woote lan moo ëpp doole. kon doxal lañ transparence ndax déglu leen fi benn cas bu bu bu bu bu bu jàdd yoon mais réaliser na aussi li mu bëggoon. ba Sénégal yi jëm kanam mais Prodac xanaa seetlaan loolu télé barke démb. Hmm. <laughs> nee na Fatima Natal dem na fa. la nekk nee na moom dafa yéemu man suivre naa ko. te te nag. Euh, ci ci affaire horticulture mbéy mu yéeme yu fa xale yi di béy mhm. di produire lu bari nga gis batañta bi gis kaani bi gis soble bi gis lépp mbéy mhm. mu mu extraordinaire te mu ngi xëyee fii ci Sénégal fii ci CFA ci wetu Sédhiou loolu ñu ngi révolutionné réew mi te loolu euh, appliqué principe bu fast track mhm. moo waral loolu am kon fast track boobu ñu ngi koy ñu ngi rafetlu parce que xam nga gis-gis aussi borom réew aussi njiitu réew aussi gis-gis bi la ñuy xaar ci moom euh, message yooyu day c'est mobilisateur moo tax mobiliser na gouvernement bi gis nga ministre yi. Mhm. mobiliser na Sénégalais yi. Mhm. commune boo ci dem ñëpp a ngi taxaw ci jëmmal gis ko su président. yàgg dañoo war a set. yàgg na am ñuy setal mhm. mais dañ ko gën a baral mm, ndax li président wax ak ñu ngi koy xaar ci yeneen domaine Babou ju ñu na ko léegi am ay sénégalais yu nekk ci jafe-jafe lu ci mel ni mbirum inondation ak accident ndax foofee aussi dinañ xaar à partir de cette rentrée là ngeen def ci ay jéego yoo xam ne vraiment euh, loolee dina nekk vieux souvenir ak affaire carcération c'est ça c'est ça problème yi am ci Rebeuss ci Sébikotane récemment am na beneen mort bu am ca prison bu Diourbel beneen waaw bu indi sax mooy plutôt ñoom ci li ma jàpp mooy rendre compte président de la République de manière officielle conseil des ministres xam nga bërëb bu ministre yi di jokkoo ak président de la République ci seen liggéey di natt di ko natt ak yooyu moom la. kon mënuñ ko faa mënuñ ko faa ñàkk a defee. kon dañuy rendre plutôt compte ci li ñu def ndax moo suñ cee jóg. Mhm. ci affaire inondation yooyu. mooy am na ci ma fàttali nag ne inondation attention conséquence la am na ci ñoo nga xam ne du ma tudd kenn nag. Mhm. mais nañ nangu ne am na ñoo nga xam ne bañ koy def ci juróomi at yi passé du ci juróom-ñaari at yi passé du ci fukki at yi passé waxin la maanaam am na ay ay pratique yoo xam ne conséquences yi la ñuy dund tey par exemple boo li ñuy wax ci ci tubaab ci concept dëkkuwaay zone non édificante yi mhm. maanaam bërëb yi nga xam ne dañ ne kenn waru faa dëkk. Mhm. mais mais docteur docteur bu wax la docteur. mais xoolal Dakar est-ce que waruñu fa dëkk wala waruñu fa dëkk. non Grand Yoff waruñu fa dëkk wala waruñu fa dëkk. non naa ne. Mhm. am na cas yoo nga ne lu bees parce que séntu wuñu ko foon ndax taw bi mën naa passé sax fa mu nekkoon ba ñuy taxawal quartier yooyu loolu mën naa am mais loolu moo ci gën a néew cas yi may wax ma quartier yi nga xam ne war nañu fii place ndox la nit ñi dëkkoon fa avant ndox mi dellu ci place am ñu coow néew ma nag rôle nguur mooy taxawu leen ak quelle que soit la situation taxawu leen génnee leen ci situation boobu c'est anticipé donc maa ngi rek mais anticipation bi nag ci lañ nekk nii mooy gis nga. a Gagny Sakho gis nga liggéey bi muy. liggéey bi muy def le euh, DG c'est l'occasion ñu félicité ko Lansana Gagny Sakho bu ONAS. ci d'abord jël ay mesures yu wér pour saafara yéen yi mais aussi conscientiser ak sensibiliser Sénégalais yi. pour ne leen fii regard bi bu fa bu ko bouché. bu fa def mari bu fa def nangam. Mhm. donc foofu y' a y' des choses à faire. au niveau de l'assainissement mais mais mais yenn yi wu ay pratiques la. Mhm. mais yenn lu ñu war a jël la ay matuwaay. à partir de maintenant. mais terre bi nii tey am na ñu bëri ñoo xamante maa ngi leen di dégg ci seen ay reportages yi ngeen def. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, terre bi am na ay ay ay yu yu jéggi dayoo yu mu def. am na ñoo xamante ne mosuñoo inondé. Mm-hmm. ci wàllum terre bi la ñu commencé inondé. effectivement yooyu tamit dafay nekk ay yëf yoo ne duñ ko rafetlu. mais mais yooyu tamit nag. ñun dafay mel ni amul ay ingénieurs yu nekk ci ginnaaw ñu bàyyi xel. waaw def ah? études yi waaw. waaw perfection mënul am c'est-à-dire mënuloo maîtriser tout am na benn pourcentage benn. Euh, taux boo xam ne mën na am faille ci li nga concevoir surtout infrastructure yu mag yu mel nii il faut nga mettre ko à l'épreuve léegi il faut mu taw pour nga xam ne ndekete euh, autoroute à péage bi mhm. fi ñu def kii bi rajo bi wala pële mënuñ ko war ko nag loolu mooy njëriñam mën a anticiper ci ah, yenn xeetu mbir yooyu waaw ci loolu laa ne ma ne mhm. pour nga anticiper boobu tawee dara lu am am na ñoo xam bu leen jëlee dañuy def ay simulation. dafa def uti euh, ndox bu bëri dem sotti ko. pour xool ndox bi exactement ndax ñu pante wala ñu. comme la qualité comme la qualité de nos infrastructures dagguma ko sax mais VDN 3 bi euh, niñ ko. ah yow foofu bi ñu fa lool sa yoon la xam nga foofu li fa li mu li tali boobu li mu fàtte ko bari te du bees la. 12 13 personnes déjà voilà parce que passerelle bi pareegul. mais passerelle yi dama gis dimanche ñu tëj ko bi ma fa jaaree tey ndekki doonaan lañ fa doon def xam nga kon loolu waroon nañ ko anticiper. Mhm. parce que li mu ray dafa bari. waaw mais problème bi mooy euh, doo daan boobu bi ngay def bi ñuy def. simulation est-ce du doo nit. xam nga est lañ teg foofu. Ah, parce que Sénégal dañuy wax doo daan mais man gisuma fi doo daan de. man li may gis ay ay ay nit yu. nel nel ay ralentisseur la rek. mu gën a <laughs> eh. donc léegi dama jàpp ne liggéey yu mel noonu pour lépp mat. Mhm. vraiment dafa dafa yombul am na ci étape yoo xam ne moom il faut nga euh, euh, mettre mbir mi à l'épreuve day am sax euh, ay essai même ci liggéey nii da ngay ñëw ñu ne dañ waa ji dañ ko mettre à l'essai te pourtant am jël nañ CVM xool nañ ko gis nañ xam-xamam gis nañ fi mu jaar mais dañ ne am na 6 mois wala 3 mois à l'essai xaw ma Nicolas. Nicolas kenn du ko mettre à l'essai parce que xam nañu. déedéet euh, essai la nekk professionnalisme essai la. <laughs> kon nag attan essai bu métti la kon ñu profité tooñ la soxna na nga def attention. essai bu métti kon. donc loolu dafay am ci lu nekk. Mm-hmm. lu jëm ci accident yi nag. lancé na wax nga ko loolu c'est man am naa ci wàll. Mm-hmm. ma beesal sama masu ci sama njaboot fële sama commune. Mm-hmm. xam naa ne yëg ngeen ko ñetti. Euh, jigéen xale yu jigéen faatu nañu fa ci lab ci benn kamb dax dañoo demoon Euh, taxani mm-hmm. mat parce que ni ko xam na luy taxan maanaam wuti ah. bois mort mm-hmm. euh, moom la ñuy toggee mm-hmm. ci gott gu wet yi ci ci àll bu jege bi ñoom lañ doon def ginaar du leen topp xam nga nee nañu ginaar du bàyyi kuy kuy bojj di topp kuy taxañ ah, ah parce que du ci gis boppam donc ñu dellu si ñu ngi leen di masawu bu baax c'est l'occasion ñu ngi leen di masawu euh, di maire bi man bitim réew la ma fekk mais taxawaay bañ ci war a def def nañu ko tout à gouverneur ak équipe CRD bu Kaolack taxaw nañu ci. Mhm. mais c'est l'occasion ma beesal. sama appel. Mhm. ci nguur gi. Mhm. ci président de la République. mais aussi ministère yi yore affaire solidarité ak dimbale lañ ca mën ñun. def nañ ko pare gu ñun daañu ko continuer. mais am ñoo xam ne nguur moo ko gën a mën. ñu ngi woote ñu jàpp lañ ci lu jàpp yooyu. vraiment pour loolu wàññeeku mais. loolu xam nga ay accident la. am na aussi ay yeneen i bërëb. nawet nag dafa am yu mu àndal. ni mu amee xéewal te jàpp nañ ne xëy na moo ci ëpp. ndax tawal ay millions wu sénégalais ñu amee ci dund. amee ci lu ñu jaay am. Mm. seen euh, lu ñu téye seen sutura. Mm. loolu gën na yaatu lool natt yooyu mu àndal waaye. natt yi bu ñu sañoon du am. très bien mais ñu mu dal. du ci commune bu Latmingué rek. mais ci Sénégal yëpp ndax yéen a ngi suivre presse bi. di masawu ñu mu ngi ci taxaw ñu ngi rafetlu aussi ci ndimbal nga xam ne. Mm-hmm. fu ñu ko yëgee. na ñoo xamante ni dañoo seetlu ni ñu bokk ci yéen sax ñoom ñoo def seetlu boobu noonu ne da xaw a ak tekkaaral bu jéggi dayoo défendre leen président de la république ginnaaw ba ñu ko falee ak léegi euh, ku ci mel ni Maodo Malick Mbaye am na benn plateforme plateforme bu mu taxawal ne léegi dañuy épauler gën a ki nga xamante ne voilà borom gëm sa bopp euh, ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall ndax yow euh, def nga constat boobu noonu seen biir parti que ni euh, da ngeen xaw a seen seen chef de parti non déedéet man nag duma ko vraiment du ma ko waxee noonu hmm. seulement comme on parle ñu ngi dund eeru wala waxtu fast track waxtu baral mbir yi. ah dégg bàyyi fast track waxtu waxtu jam jàmpal ko luñ ci doon def rek ànd naa ci ne war nañ ko yokk. Hmm. ku nekk ci ñun njëkkee ko ci sama bopp noonu laa ko gisee. mais s'il li ko waral mooy ki ko wax ci ñiy jàppale président la bokk. Mhm. ci ñii jàppale. ah oui bien sûr Maodo Malick Mbaye borom Thiès. waaw mais sa bopp. waaw mais mooy appareil politik mhm. bu njëkk bu président Macky Sall. Mhm. kon da ca wàll si def cee doole si. du doy nag. jërëjëf day mu ngi rafetlu liggéey bi muy def mais loolu laa bëgg a leeral rek mooy am na appareil nekkul ku bees de depuis 2012 non non sama 2012 la bokkoon ba tey waxuma waxuma bees ci sens boobu li ma li ma bëgg pour ñu jox ko bi ma ko bëgg a jox mooy am na appareil politique bu jàppale président Macky Sall ca cosaan ba mu falu du appareil boobu rek nag moo ko fal mm-hmm. mais bu ko jàppale ca cosaan laa wax mm-hmm. kooku mooy dooleem bu njëkk kon dama jàpp ni ñooñu mos jóguñ ci loolu mais nag buñ doon évaluer du ma wax ne doy na non non dama naan nañu yokk taxawaay bi ci yëglu bi ci communiquer comme ni ko ministre yi gouvernement bu bees bi defee vraiment gis naa ne sorti am na te nit ñi yëg nañ ni ñu ngi seen wet ñuy communiquer. Mhm. parce que jamono bi ñu nekk jamono communication la. li la koy won mooy le phénomène Sonko. exemple laa ci jël nii rek. ku nekk jaaxal na leen de jaaxal na leen de. non jaaxal nañu tere na leen ngeen nelaw de. non non jaaxal nañu si si ah, si Nicolas boo ma dégloo rek nañu ko wax nañu ko wax te du waay boo ma dégloo rek naan expliqué. saa yu jukkee benn dossier ñëpp màbb ñëpp daw fi may jëli. te balaa muy kii mu jukki beneen. fi may jëli taw fi may jëli. dina gën a sori foofu. ah bon avant libéralisme lañu doon wax socialisme communisme ay courant de pensée. Mhm. tey loolu seetlu nga ne amatul. lu ko waral. très bien. parce que génération bi def politique tey am na ku mu ko dégg mu gooy wax def naa yow la ne am na ñoo xam ne xamuñu yal na yàlla yërëm ko kilifa gu mag boobu ministre d'état Amath Dansokho mhm. Mhm. ku nekk gis nga fan yi chronique bi moom la woon nag wax ji moom la woon mhm. mais bëri na ay jeunes sénégalais yi wax mais finalement kooku mooy kan te pourtant yàggul lool li ma la bëgg wax mooy génération Euh, sénégalais yi tey yi nga xam ne ñoo ëpp ci ci sénégalais yi ci 15 millions yi muy ndaw yi am na lu bëri lu ñu dundul ci côté boobu li ñu dund ci période bi mooy. dans quel sens yore sa téléphone. ci ci ci ci ci wàllu ci wàllu voilà ci wàllu doxal affaire ay idéologie maanaam communisme lii la wootee da nga war di dimbali sa morom da nga war di dem libéralisme lii la wootee dafa bëgg est-ce que je me fais comprendre ñoom dunduñu hmm. parce que boo demee sax au niveau des partis il faut l'avouer école parti yi sax yi ciy fonctionner. na mu waree. dama nga seet. ñi njëkkee ko ci yéen. maanaam non man bàyyiwuma kenn. di <laughs> ma la wax mooy di changer ci. paysage politique bi ah moom laa lay wax. Uh-huh. ba tax phénomène yooyu mën a xew. léegi lu xew am sa téléphone. social n'est-ce pas. Uh-huh. lu ci génn nga ne mais gis ngeen lii nangam donc mooy buntu bi pour tey ñun ñëpp ci ndaw ñi ci population ay ndaw lañu. Uh-huh. te loolu mooy seen jumtukaay mais boo ko jëlee comme jumtukaay mais il faut nga wax ak ñoom. donc euh, maanaam dañuy neex a manipuler. exactement donc li xew mooy boo ko seetloo ay group ñoo xew ay coalition les coalitions yooyu nag toujours dina am fu mu soqe ko ak lu ko lal. boo jëlee kaw coalition dina bokk yaakaar très dynamique très pertinent. waaw très bien attention maintenant on parle président Ousmane Sonko. Mm-hmm. ah fast track bi mu leen def ah, ah, ah. on parlait <laughs> ci biir affaire. exactement ci ndimbal li ci affaire lañu ne. <laughs> ko dégg noonu Nicolas ñàkk défendre. voilà ki nga xamante ne mooy chef parti. voilà ci ñàkk ko défendre parce que tout simplement on voit des sorties yoo xamante ne ku ci mel ni Ousmane Sonko mu ngi koy def keneen ak keneen euh, Adama Gaye mi nga xamante ne tey war na taxaw ci kanamu juge bi. Euh, ko mais duñu gis ñu ko défendre. Mhm. ñoo xamante ne derrière argument développement yu taxaw yoo xamante ne nañ ko mën a defar loolu moo tax ab euh, Maodo Malick Mbaye euh, borom gëm sa bopp borom Thiès muy artu pour gars yi defaraat rang yi pour ñu xam ne ñu war a mën a waaw li ma wax mooy Maodo Malick Mbaye man rafetlu naa taxawaayam ah, si loolu fàttali la uh-huh. te fàttali baax na uh-huh. ndax dina jariñ uh-huh. man ci cadre boobu laa ko boole damay fàttali ne damay fàttali ne APR mooy appareil politique bu président Macky ñooñu ñoo ko jàppale ca cosaan ak ñam ca àndal bu jot mais ñooñu ñu ngi fi mm. continuer di ko jàppale mais nag dama ne commencé ko ci man lu ci waay di def waxtu baral la ñu toll war nga ko yokk ma doon jël exemple ministre yi ci liggéey yi ñu def ci fan yi ak communication ma jàpp ne responsable politique yi ngay maire di responsable à la base loo ci mënti nekk da nga war a taxaw pour jëmmal gis-gisu président de la république li mu wax ci initiative euh, euh, euh, initiative yi mu jël ak accès yi mu jël ci programme bi mu lancé. nga nga jëmmal ko ca fa nga dëkk. Mm-hmm. ni nit ñooña dund. appel président de la République. xëy na ñuy doxee waa APR effectivement maa ngi wax ni. li ñu def. Hmm. ñu ngi ci mosuñ cee jóg. mais nañu ko yokk. Hmm. ndax waxtu wi dafa nekk waxtu communication. nga xam ne ku la jiitu. Hmm. ci organe bi bu waxul naka noonu it. mën naa am ñu mu yóbbaale. ndax déggul ndax ñooñu dégguñu leneen. d'accord kon bokkoo ak Maodo Malick Mbaye euh, xalaat mais am na ñenn ñoo xamante ne dañoo am aussi beneen xalaat bu ñu bu ñu jëmmal mooy que ni ñu bari ci si ministres yi wala ñu fare ci biir APR wala sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen i seen i euh, seen i euh, ci wàllum politique yi waa benn bokk yaakaar dañoo teg bët euh, fauteuil président Macky Sall ku ci nekk talatul président bi boppam la tal yaa ngi defaral sa bopp. foofu nag la sana man dama euh, rafet lool li tax ma ne rafetlu wu ko. est que am na. mënuloo bu dee am na. ah am na kay bu demee ba président Macky Sall nekk Paris wax ko. waaw am na am na kay. non maa ngi ñëw rek Aminata Touré am na kenn ku ma woo di ma wax pôle communication bi dama bëgg nga bokk ci. am na de <laughs> très sincèrement. non Nicolas non lu sérieux laa lay wax. Nicolas day yokk may ma <laughs> ay yokk ah xaaral ma ñëw rek. ah lii rek léegi doon na ma défendre yéen xaaral ma duma président Macky Sall. Nicolas may ma ñëw rek waaye doon na ma défendre léegi. non non Nico Nico li mu wax dëgg la. parce que président moo ko waxal boppam. waaw waaw nee na bu ci teg ba fauteuil am na ko teg ci suufu mandat am jeex. Eh, dama ne lu waayoo tey moo njëkk a tere loolu. tout à fait. Mm-hmm. on d' accord. Mm-hmm. waaye mooy maanaam xam ne nag mën a waxee ci wala kóllëre. Mm-hmm. ci ànd. ak nit. moo njëkk a tere. ñu falaat ko. dëgg la ngir ay résultat am. falaat ko ngir yaakaar au lieu nga jàppale ko. boo mënee yokk sax ci la nga jàppoon pour que mu def lu raw li mu defoon réew mi mun a nekk de manière définitive ci rampe émergence nga xam ne ku fi ñëwati it. doole ci nga mën a def mu jëm kanam mais munoo waruloo nekk di xalaat. te le Sénégal kii man dama jàpp ne dama ko rafetluwul sax quoi ci ci ci doxalin diggante nit ak nawleem. très bien bu dee am na loolu ñu war a def pour ñu teg ko ci suuf maanaam mesure du tuuti mukk mhm. ci wàllu. bëgguma tudd répression mais en tout cas mesure bu arrêté seeni borom mhm. du toon ci masla ñu arrêté leen sans la manière mhm. ñu parce que bu ñu amul gêne ci def ko mhm. war ñu amul gêne nguur gi non président Macky Sall ak ñi mu àndal équipe bi waruñu am euh, euh, gêne ak yërmande ci delloo leen seen place ci manière ba mu laaj ma jàpp ne loolu aussi du loyauté vis-à-vis du peuple sénégalais parce que sénégalais yi à cinquante huit pour cent ñi teg ñoom ñoo ko ne doy nga ñu. Mm-hmm. ci li nga def. d'accord yaakaar nañ ñu lañ la ci li ci kanam. Mm-hmm. kon boo nekkee di eh, jéem a lor ñi fauteuilam wala ngay gêner liggéeyam. d'accord Sénégalais yi nga amal affaire. ñoom nga bëgg a gêner. Mm-hmm. seen yaakaar ñoom nga bëgg a gêner seen liggéey. fexeel ba moom bu pare. kañ lay pare mooy bu juróomi at yi jeexee. boo wóoloo sa bopp. d'accord boo bëggee. nga yëkkati sa loxo. très wax ak nit ñi lamu mu waxoon ak ñoom ba ñu wóolu ko. d'accord bu dee jox nañ la nga wane lu tax ñu téyewaat la fi. d'accord mais affaire bi nekkul ci bëgg a profiter ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci régime parce que noonu la. parce que boo ku ko fiy def rek. waaw ci président nga wéeru. waaw. pour di ko jéem a def. maanaam ci dooleem ngay xeexee daal voilà dooleem ngay xeexee merci maintenant loolu bokkul ci loyauté loolu bokkul ci ci kóllëre bokkul ci respecter. d'accord votu yi. ma jàpp ne. léegi question fermée jël du du du rëy. question fermée oui wala non lay lay lay lay wuyoo. nga ne ngeen. question fermée. waaw nga ne ma waaw wala déet. day def troisième mandat wala du def troisième président de république li mu ci wax. non dafa ne wii wala non de. man du ma ko paase. <laughs> troisième mandat dégg nga ko nitu presse la. ñun ñëpp dégg nitu musique laa garaaw man garaaw man da man kay fu mu toll nii man li mu bëgg kañ mooy nga wax ma. Ah. waaw wala déet. wala déet parce que démb rek. maa ngi waxtaan ak benn kilifa gu mag. Hmm. bu bokk ci affaire. mu ne ma lu tax du ko def mu ne ko luy loolu. Hmm. mu ne benn mandat la. non bu ñu dugal loolu. ci non dafa tànk stratégie la léegi nag moo tax ma koy laaj. nit ñi ko laaj ma waa léegi ma gis sama temps grand la sama xarit la sama la sama la mais dama nga ne ma waaw wala de man ma wax waxu président Macky Sall c'est-à-dire yow li nga gëm yow en tant que maire. di mhm. taxaw di taxaw di représenter waaw di président Macky Sall partout dans le monde foo dem moom ngay représenter c'est vrai que Sénégal moo la tax a jóg mhm. mais c'est oui ou non vous un troisième mandat oui ou non s'il vous plaît. non Nicolas <laughs> maa je vous renvoie. Paa mu bañ. dama lay renvoyer voilà Paa mu bañ. non xaaral rek xam nga lu muy bañ a. non naa ñëw naa ñëw day wàcc rek ñu ne ko yow conseil des ministres bii doon ñëw dañ la bëggoon fal sax. bàyyi non non moom xam na ma. Ah, waaw d'accord ah, non moom xam na ma. waaw jeex na damay renvoyer. ci li président ci boppam. très bien tontu. c'est juste. sama avis nag mooy. c'est juste ci deuxième mandat la nekk. waaw d'accord. nañu ko bàyyi nañu ko dooleel nañu ko jàppale hmm. mu dawal hmm. pour euh, respecter yaakaaru d'accord sénégalais yi très bien 2024 bu ko defee mu nekk arbitre moom dafa nekkoon avant nekk directeur de l'horticulture ah. dafa nekkoon directeur ISRA te jamono ji dafa amay coow suuf boo xamante ñu ngi koy wax fële ci Sangalkam mm-hmm. te moom si si la affaire ne moom dafa siddale woon ay kër jox ko ñi nga xamante mooy les boss du dimanche quoi léegi est-ce que loolu lan mooy boss du dimanche ñi nga xamante mooy patron yi rek ñi nga xamante ne dimanche dañuy relax si nga dem béy ji du genre yooyu <laughs> ne si daf may laaj ndax am na loolu amul ñun amuñu d'abord possibilité wu sax joxe suuf hmm. euh, maanaam aliéné suufu Israël loolu même ka fa nekk hmm. tey mënu ko parce que suuf bi suufu état la Israël li mu ci am mooy jouissance maanaam dañ ko ne occuper suuf si pour liggéeyal réew mi nangam hmm. fii xam nga ne kam affaire maraîchage affaire jiw affaire tàggat ak affaire élevage ca cosaan moo taxoon mu jóg loo tax ñu yokk ko mhm. comme région boo dem tey boo booy dugg ci dëkk boobu la booy génn ci dëkk yu mag yi di nga gis tableau ISRA mhm. ay milliers d'hectares la ñu yore à travers mi mais moomuñu ko mhm. kon li nga moom nga mën a aliéné très bien mënu cee joxe bàyyi mënu ci gàttal la mënu koo aliéné mu leer kon kon la ca mën a nekk mooy nga def ko mise à disposition wala protocole bu la lié hmm. entre kay liggéey foofa ak ISRA loolu moom lu mën a nekk la parce que am station ISRA yoo nga xam ne am na ay privé yu ñu fa accueillir di liggéey ak ñoom ci benn mbir ñu indi seen xaalis par exemple ñuy def jiw ñi multiplier semence hmm. am ñoo xam ci yenn station yi mën liggéey ak ñoom pour ful fa jiw hmm. mais ISRA mënul aliéné benn centimètre carré kon li ñu mën a jàpp daal mooy bu suuf si ndax dañ ko jox rek pour mu jëfandikoo ko. kon amul moomu ko waaw kon amul. pour maanaam mënul très bien jërëjëf docteur taxi yi mun merci jërëjëf docteur Macoumba Diouf directeur de l'horticulture muy maire bu euh, Latmingué bokk ci APR nekk koo xamante ne mu ngi def jéego yu am solo depuis bi nga xamante ne euh, sénégalais yi ngi koy ràññee euh, ci wàllum politique les dernières mesures prises par le chef de l'État lañ doon waxtaanee mhm. l'inertie des apéristes dafa am loo bëgg a wax am na benn mbir moo xamante ne Mamadou Lamine Diallo moom moo ko jukki mhm. xam nga dialogue politique bi démb ñu ngi doon waxtaanee poñ bu jëm ci statut du chef de président dafa bëgg a ci nuñ ko déggee corrompre ki nga xamante moom la fal mu nekk chef de l' à hauteur de milliards pour mu noppi ci yenn mbir yoo xamante soxla na lu jëm ci wàllum pétrole. chef de euh, ko il faut ñu xool. même même bu xool ci mesure yi mënul doon Ousmane Sonko. parce que ñaar la mën a doon. soit ku jëloon deuxième ci législative yi. wala ku jël deuxième ci présidentielle. te deuxième ci législative yi Abdoulaye Wade la woon. deuxième <laughs> duñ ko def mu nekk dernier question. waaw waaw si mu jàpp ko. kon dañ koy téye da koy préparé loolu la def lob daay. <laughs> d' accord yaa ngi fàllu nu mu tolloon. lob daay lob daay. Euh, xamatuma. ah bon xamatuma. ndeysaan très bien Ndiawa nii nga def tey. waaw kon culture la ñu wax. culture la ñu wax chorégraphe. chorégraphie. national international. de son vrai nom Gomis. moom nga indi tey. moom laa indi waaw mais euh, di xaagi ni borom Sénégal Gambie na nga def. naka suba si. sant yaa ngi mais di xaar nit ñi nam nañ la di xaar yow ci loo ne. moo tax ma ñëw. ah mais tamit waaw laqatu bi lu ko waraloon loolu bi loolu bi dellu ginnaaw bi loolu bi lan moo ko la moo ko waraloon. dellu gannaaw mooy loolu bi quoi maanaam euh, raar bi gars yi gisatuñ la gars yi bëgg nañ la dégg gars yi bëgg nañu la gis mais jafe na. ma ñëw hmm. parce ngi ñu ngi lay fay El Hadj Ndiaye. ma mm. dama <laughs> di nuyu ñëpp. Euh, di wax gars yi euh, sonn nañu di xaar sotuñu di xaar léegi di xaar is mm-hmm. in the game. Mm-hmm. très bien. <laughs> may lu sew rek ci sa baat bi nii ci suba si nii benn affaire bu sew rek rek noo ma wéy waaw. ok. mun na nekk suñu diggante mun na dem ba onlaneka bonekek mandixa bul di feel lonely yeneen saay ma dal di la woo keneen di dem di picc sa xol bi naka ngay xamee ma nit ñu ma amee 2STV très bien maintenant euh, euh, woy bi ngay woy tey euh, fan lañ la mën a fan lañ la mën a fan lañ la mën a situer ne yow woyu arène bi ngay def pop rap wala mbalax lan la ñu mën a définir ci woy musique bi ngay def wala reggae waaw man musique laay def ah. amoon ni mbalaax wala R&B wala afrobeat man musique laay def. Hmm. musique boo xamee ne santir naa ko. musique bu neex laay def musique international laay def. musique international waaw ci benn. très bien am nga lu bees loo génnee de. waaw am na lu ma génne euh, benn song euh, Manding. Manding ak euh, Bambara. Hmm. tuddee ko Kalontege. Kalontege mooy la Kalontege mooy fen. ah bon. <laughs> maa ngi waaj fen daal. Ah <laughs> góor bi def si Fatou di yow laa nopp tey Binta suba Mariama moom dee wër di fen rek. Badou Sawa ñu da ko dund ak moom Badou <laughs> Sawa ñu da laa kii. non euh, dafa doon li xew rek li xew xam nga. góor ah, yi ñu ngi toj xoli xale yu jigéen ñi nga ah? góor yaa ngi toj xoli xale yu jigéen ñi. ñu ngi koy toj <laughs> vice versa aussi xale jigéen ñi lu ñuy def euh, xoli xale yu góor ñi. dafa ëpp. ah yéen dem nañ ba ne xale yi dañuy maxaat xam nga booboo gën a di gaaw <laughs> kan moo toj sa xol yo kan moo la yëngal yow kan moo la kan wax la lii dem fay wax lee yow ah. <laughs> Eh. kon yow Nicolas Nicolas da nga ñu doon nëbbu. tey leer na j' espère waa bàyyi. voilà Ndiawar n'est pas là très bien on y reviendra tout à l'heure euh, bu ko defee nga waxtaanal ñu euh, morceau boobu ban euh, tonalité nga ko joué loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak Dikha moom mi nga xamante ne en tout cas mu ngi def ay jéego yu am solo baat bi neex na elle est magnifique de mu nekk koo xamante ne suñu nit la dégg nga léegi nii Dikha ni mu daanelee ci 2STV ci noonu dañu ànd ak. l'international jëm xale yëpp moom lañuy ñuy seet ndax dañ naan muy sama ndey muy yaay yooyu waa jaay yow daal yaa fii di ku ne yow bu ma kañ ngay bàyyi li ngay def nii non man yow jaaxal nga ma bu yéegee ci kaw muy sama ndey muy yaay sarap la ah, mu ngi nii surtout que maa ngi mu naan day def chorégraphie ci école yi mooy kon li ma lay wax kon du dugg gendarme de <laughs> kii toj na école yëpp. non naa si dugg ren nag. gis nga après voyage moo tax dugguma ba. gis nga gis <laughs> nga ba pare xam nga day roulé L day roulé R. day roulé nawoon naa fa dugg ren nag mais après voyage moo tax. voyage moo tax baax na du fa dugg de. gis nga xale ñoo ko wax bul sol chemise. non non sol ay kii. non léegi élèves yi ñooy dem. élèves yi ñooy dem léegi dama yónni booy rek ñoom ñu dem. mais booy xam nga boo leen di yónni yaa ànd ñoom. non non da ngeen coaché waaw bàyyi ko. Ah. yàlla di coaché bi waaw bonjour euh, c'est Ambroise Gomis je suis venu avec mon équipe là. mettez-vous là en place voilà passe. ça tourne voilà. ayca kon lu waxee di la remercier. ñuy recevoir nag Ambroise Gomis muy chorégraphe waxtaan nag tey ci wàllum pecc. chorégraphie moom bokk na danse nekk na danse boo xam ne mën naa wax ni Sénégal bëriwul. Mm. Euh, ñu koy def am Ambroise. Mm. ma bëggoon rek euh, avant ñuy xus ci waxtaan bi nga présenté wu waa nos téléspectateurs wax leen yow yaay kat. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa plateau bi sànq dugg nañu wax te nuyuwuñu. waaw mm. ah, di la remercier yow Diawar également ci invitation bi grâce à Babacar. sa grand frère. Mm-hmm. mu nit wàcc grand bu baax. profité ci occasion bi aussi. Mm-hmm. nuyu Sénégal ak waa Casamance ñëpp. ah Ziguinchor sama quartier Sicou Papaye là la j'ai fait l'enfance fi ma jàngee aar. Guédiawaye également. Mhm. Euh, di nuyu suma yaay parce que suma yaay la. gars yi bu ñuy wax ay man kii mooy sama sëñ kii mooy yooyu man. sama yaay mooy waaw may maama. mooy sa ma doolee mooy ma force elle tout pour moi. moo tax ci moom rek laay concentré wu donc. Euh, je m'appelle Mohamed Ambroise Gomis je suis un homme culturel un chorégraphe et metteur en scène mm-hmm. danseur interprète waaw dañu dañu branche bi dafa dafa bari quoi d'accord waaw ban âge bon boo doon wax nit ñi ban âge nga commencé dugg si fecc ak loolu presque bi ma nekkee xale bu léegi moo yàq sax suma jàng mm. waaw moo yàq suma jàng waa géej waaye ñu may seetaan bu ñu ma déggee mooy wax lii danañ xam ne damay wax dafa nekk waaw donc euh, bon jaa fekk bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi koy def xoslu ci nag sonn ci parce que c'est pas facile ici. waaw loolu dinañ ci ñëw. waaw dama bëggoon avant foofu sax nga wax ma différence bi am entre danseur professionnel ak euh, chorégraphe. ok bon danseur professionnel souvent c'est des c'est des qui ont fait des des formations qui maîtrisent les règles qui sont dans la danse. Mm-hmm. un chorégraphe c'est quelqu'un qui chorégraphie. mën nga nekk un bon danseur te doo nekk un. un bon chorégraphe un mën nga nekk tamit un bon chorégraphe. Mhm. te doo nekk un bon danseur waaw. fecc lan lay firi ci yow Ambroise. Euh, je me libre en tout cas muy fecc moom je me sens très très très mhm. bu may fecc suma xol dafay sedd guy parce que damay def lu nekk ci man. <laughs> maa ngi gis baabu mu koy de <laughs> donc loolu mooy yow booy fecc ba état état d'esprit état d'esprit boobu ngay nekk. Mhm. lan moo lay inspiré. li may inspiré mooy euh, suma yaay dafa bëggoon fecc trop aussi. ma maman aimé danser quoi ba tey sax day fecc. d'accord waaw. ay patanga. <laughs> elle est polyvalente tout le temps bu musique jolee rek nga gis mu def ay déroulement s'exprimer wu librement corporellement. donc euh, mën naa donc ci moom laa ko jëlee bu baax maama maama maa ngi m'inspire. ok euh, mooy sa inspiration. mais est-ce que aujourd'hui tu vis à 100 pour cent de la danse ci bi ngay def. bon on peut dire Dieu merci parce que souvent da ngay dégg artistes yi ñuy wax art dafa métti man j'ai l'habitude de dire que art dafa métti surtout nga nekk fi un danseur ma profité ci sama docteur monsieur le maire. Euh, suma suma frère yi ñii di simb. waaw dañuy simb dinañ di jàpp ci mbedd bi di nangu seen sabar di leen jàpp di leen tëj. te par contre li ñuy def dafa bokk suñu aada. dafa ah, bokk suñu cosaan. te dëkk mënul dem sans culture am. sans interdiction. dafa am interdiction yàgg na ça fait maintenant 22 ans ou 23 ans gars yi fu nekk jaar fa Nicolas di fëgg buntu yi et c'est très rare ci plateau télévision yi nga gis ñun ñi di ñaxtu ñaxtu boobu mm. la plupart plateau télévision yi politique la leen wax. wala religion c'est vrai yooyu moo fi ëpp doole. mais bu taa yaa c'est grâce donc moo tax waaw je profite je profite de la plupart ci chaîne télévision yëpp pour nga gis genre débat yi c'est très rare ñu invité un danseur mu développé ci certains points yu la danse la plupart dañuy un mbalaxkat mu ñëw taxaw fecc comme ni ma def sànq fecc loo ma man j'ai l'habitude de dire man feccantuuma quoi j'aime pas on me dit. kay fecc exact mm. j'aime pas ça du tout. d'accord waaw parce que je me suis tellement rampé sur la danse sonn ci tuuti moo tax su ma ñëwee rek ba ma ne kay fecc rek pour man. da ngay waaw damay gis suma bopp tuuti quoi j'aime pas ça du tout man je vis professionnellement. mais est-ce que du métier bi ngay bi nga bi nga bi nga jël muy fecc moo xaw a sensible aux yeux des Sénégalais. raison raison voilà raison pour laquelle li ci gën parce que da da ngay sonn trop boo nekkee un. boo nekkee boo nekkee un danseur boo nekkee un danseur. doo yow doo bëgg sax euh, ñuy wax baatu fecckat daa mel ni ñuy théâtre dañuy bañ ñu leen di woowee théâtre kat. non man ça man ça me dérange le fait que nga ne ma fecc kat ça me dérange pas yàlla moo def que je suis un danseur. Mhm. professionnel et polyvalent. mais un danseur parmi les danseurs. waaw mhm. man dama topp wéykat di ko feccal. dama dem taalibeer dama dem soirée sénégalaise. exact exact je vis je vis waaw je vis mon art. individuellement ah, j'ai une compagnie qui s'appelle Jàppante Jàppante Family et puis macha allah yàlla dimbaluñu on a les relation chaque jour ko Dieu fait am ñuy def chaque jour ko Dieu on gagne quelque chose et on la partage ñu ngi ciy dimbali suñu yaay et ñu ngi ñuy ñaanal donc macha allah quoi. d'accord Ambroise tey nan nga gisee yow danse sénégalaise. bon am na avancement amul avancement. parce que waaw ak suñu yenn tur yi ay euh, kii bi doon wax waajoon waa ji listé woon ci. Euh, sànq li mu ko gis muy def dafa ñu rëkk fëccëg baalu jën. waaw 75 75. fecc bi 75 fecc bi génn waaw gis naa gis naa vidéo boobu noonu damaa réew mi. waaw loolu kay gaan boobu boobu dafa baax trop macha allah. jàpp na yëpp waaw mu capté mu capté 75. <laughs> macha allah. ne moom la ñu am Sénégal. Nicolas jàpp nga benn yow. jàpp naa ci 75 fecc yooyu. ras gis. gis naa ko mu def ci benn léegi fii. sànq ba tey yaa ngi laas wax laa gën a demee nag. moom mi ci vidéo yi gis naa ko muy xëcc baalu jën. ah xëcc baalu ñi nga def noonu. non non non non kon dama ñëw ñu quoi. non man dama def loolu. bon j'aime bien nag chaque année am lu génn ci fecc. waaw parce que day day dimbali fecc. parce que fecc dafa soxla loolu. mais am na fête yoo xam ne jarul génn quoi. vraiment. Ah, moo tax euh, esprit bi mu waxee léegi man neex ma lool professionnalisme. ci dance danse dafa am message yoo ci mën a. Euh, je euh, ci mën a véhiculer. dafa am ay valeur yoo ci war a mën a. ko kon bu fekkee dañ koo jàpp ci affaire bu bu bu ñàkk solo. effectivement du neex ko nga xam ne da koy def en tant que professionnel. vraiment dañ ci ci yoon yow loo jàpp ne euh, ci danse bi c'est-à-dire composition wu danse yi de type de dance du ma ne la moo am. mais yow en tant que euh, Mohamed Ambroise Gomis ak sa compagnie. Mm-hmm. ngeen di def. Mm-hmm. donc xam nga fecc tey kenn mënu la wax fii la commencé. non pas fii la commencé ah. yow da nga am compagnie. compagnie bi dafa am critère. Mm-hmm. vous êtes des professionnels. mais am na ay type de danse yoo leen di véhiculer. non on est polyvalent. mais combien de danse par exemple la compagnie bi di def cest à est-ce que mën cinq danse nga ne ma ñu dañuy def bii dañuy def bii dañuy def bii tradi-moderne, contemporain, de danse. qu'est-ce qui fait cette différence la différence de ces de ces types de danse ok bu ñu def traditionnel c'est quelque chose de tradition moderne c'est la danse moderne. waxoo ma de lu may jaay luy loolu moi. <laughs> tradition lan laay wutale lan mën nga maanaam nga wane ko xam naa ci chorégraphie moo la gënoon yomb nga expliquer ko. ok comme moderne. la danse moderne mooy gën a yomb tey que nga expliquer par rapport la danse traditionnelle. Mm. tu comprends ce que je veux dire. Mm. ça dépend ci li muy expliquer ah. cest dire xam nga euh, dañuy wax euh, buñ ñu doon wax batterie tey dañuy wax am na papa maman. xam nga am na ternaire am na binaire. c'est des temps. Mm-hmm. xam nga am na euh, li nga xamante ne mooy roulement. Mm-hmm. xam nga am na loo xamante ne mooy jazz yi. Mm-hmm. am na loo xamante ne mooy cest dire mu nekk ay types yoo xamante ne dinaa comprendre c'est-à-dire danse bu ñu koy wax mooy sabar yi. mooy xam nga mooy rëm tëmbi tëmbi mooy ceebu jën bi mooy nangam moderne bi peut-être bit bi nii lañ koy tëggee. Mm. contemporain bi nii lañ koy defee euh, ak xawma lan bi nii lañ koy defee c'est-à-dire loolu laa bëggoon xam quoi parce que man je comprends xaw ma. xaw ma danse xam naa ne daal. Euh, ok Banaya Sissoko nekk HLM Patte d'Oie am na benn partie boo xamante ne ay danse la ñuy def. Mm-hmm. suñu leen xam ne ñii bale lañu. Ah, mm-hmm. ay danse bale la na par exemple comme li ñuy wane ci illustration mooy danse traditionnelle bi xam nga danse traditionnelle moom foo ko fekk fu ñu teg ay jëmbe ak ay sabar rythme bi boo ko déggee parce que dafa am ay yoo xam ne c'est traditionnel mais léegi monde bi dafa dox d'une d'une manière que mm-hmm. rythme dañ koy traditionnel ba pare mais da gis ni ci improviser la danse la moderne. Mm-hmm. day fekk le danseur en personne ou la danseuse bu bëri technique. comprendre nga moo tax léegi ay rythme yoo xam ne comme da traditionnel la lamba dundumba bale ceebu jën bale sabaax yangam ça c'est des danses traditionnelles hmm. mais la danse moderne rythme bi yow le chorégraphe yaay créer un rythme boo xam ne da koy moderniser hmm. waaw dafay am but hmm. comprendre nga yaay ci liggéey ak euh, les batteurs comprendre nga bu ko defee ngeen moderniser danse bi mooy comme style bi ngay gis nii ma may travail kii tradi moderne le rythme bi dafay am tuuti bitu funk ci biir comprendre mooy ñu moderniser affaire parce que tout le temps tout temps. baax na ngay nekk ci tradition bi mais aussi tamit léeg-léeg nga moderniser. Mm-hmm. moo indi afro contemporain. très bien mm-hmm. d' accord alors juste pour euh, finir Nicolas di ma reste deux rek mu waxoon ma ci euh, métier bi euh, yan genre difficulté ngeen di gën a faral di jàppante. boo métti na boo ci professionnalisé wut sa bopp. waaw boo ci professionnel sa bopp mooy ci talibéer yi dañ lay woo tout le temps dañ lay woo téléphone. Hmm. waaw kay am naa xew fii. <laughs> baabu nee na te dañ lay woo téléphone. nee ah. <laughs> na am naa xew fii. non non je suis je suis vraiment désolé am na am na ce qui ce qui ce qui le vit. am na ñoo xam ne ñu ngi koy dund des danseurs loolu. moom waaw moom la ñu opté mm-hmm. mais man yow bëggoo loolu waaw kenn dama woo téléphone pour wax am na am na contre ma nag fecc taalibe parce que dama bëgg sabar ci ci li may li may ci la bokk dafa bokk ci man dafa bokk ci ci Sénégal comprendre mais j'aime pas di fréquenter comme gars yi li ñuy def euh, ci euh, taalibe yi wala topp un artiste waaw man tout le temps je li nekk ci sama bopp du pour topp benn artiste muy wéy rek man may tëpp tëpp tëpp ci ginnaaw loolu dafa métti trop fecc dafa métti man je préfère li ma war a fecc ça demande beaucoup d'énergie waaw a maa koy composer sama bopp maa koy créer sama bopp nga xam ne tout ça c'est mes œuvres démb rek maa ngi wax booy fecc bi léegi dox na dox boo xam ne ok da ngay jël musique bu jàmbur nga rey ci sa bopp tu fais sa promotion de l'artiste par contre artiste bi xamul sax yow yaa ngi rey sa bopp tu son sa morceau nga def ci une très belle chorégraphie léeg nga def ko vidéo tout le monde apprécie mm-hmm. mais en retour lan la la artiste bi indi di indil par contre moom ngay def promotion am. oui yow yaa liggéey ci note bi yaa liggéey si voix am def lépp et tout et tout comprendre nga may leen may le temps que léegi mm-hmm. ñu. professionnaliser suñu bopp ku ci nekk nga yore sa ay affaire bopp nga koy liggéey parce que lu wéykat bi am le danseur mën na ko am gisoo Bercy yu mujj scène yu mujj euh, chorégraphe yi si am Nicolas ak ñoom Pape Moussa et tout alors juste Amady Badiane aussi voilà yaa ngi gis euh, chorégraphie la yi di gën def juste pour finir yéen a ngi préparé benn concours grand théâtre pour delloo njukkal euh, Béjar bëggoon naa waa nga nga si on prépare un concours bu grand théâtre bi def mhm. ñu ñoom ñu confiance ci man teg ma devant pour que ma piloter. projet bi ah, projet bi ma ci remercier monsieur le directeur Keisi Bousso. Mm. et le directeur artistique également Ousmane Noël Cissé. Mm. Euh, monsieur Tall conseiller technique. et euh, monsieur également toute l'équipe du grand du grand théâtre spéciale parce que bu dul ah de la culture quelqu'un que je partage beaucoup de choses mm. mm-hmm. euh, donc merci à lui aussi le projet Béjar c'est un concours de danse mm-hmm. traditionnelle danse contemporaine simb et mise et chant traditionnel danse contemporain wala traditionnel mais xam nga Sénégal fii danse amu fi puissance noonu. très bien a des journées journée mondiale de la danse yu ñuy def au Grand Théâtre da ngay gis du am sax public. oui gars yi sax pour seetaan il y a beaucoup de festivals yi fi am. Mhm. public bi duñ sax ñëw. donc euh, ñun ñu ngi jéem a lancer. défi boobu noonu moo tax ñu am idée boole ci projet bi. Mhm. simb parce que bu ko defee gars yi génne ci mbedd bi. ci koñ yi. dugal ko ci saal yi xam ne simb am na valeur. am na importance boo xam ne. Mm-hmm. dañ ko war a dugal ci saal yi professionnaliser ko. d'accord date bi kañ la. Euh, date yi c'est la def nañ première prime bi. benn bi c'est le 8 septembre bii di ñëw dimanche. la finale c'est c'est pour le le 28 septembre incha allah. d'accord à partir de quelle heure. 15h ouverture des portes démarrage spectacle 16h30. Euh, Mm. donc yaa ngi jox rendez-vous gars yi le 8 ak le 20. le 8 ak le 28. ak le 28 le 28 incha allah très bien merci beaucoup Mohamed euh, Ambroise Gomis tey moom nga indi woon tey projet bi daa fi ñu yóbbu. Mm-hmm. Euh, mooy wane ne rek c'est une femme euh, de la culture. moom ci lu ne lay lay fële sanction bi pour simb bi. très bien ba monsieur le maire. waaw d'accord loolu dina ci jàpp incha allah. sama frère yi sonn nañu trop. voilà dafa métti solo bi rek. jaajëf peinture bi. waaw tout à fait waaw waaw ça prend du temps. très bien Babou oui Babou ñu waxtaanee ko rapidement avec l'actualité sportive nationale et internationale Euh, que nous allons démarrer avec le basketball Sénégal euh, dem na euh, ci championnat bu bu am solo mu di championnat du monde. Mhm. basketball deux def na dem gum deux sorties deux sorties la benn bi gis nañ ko 54 points d'écart démb xaw na tane tuuti mais suba ñuy xaar Sénégal war a jàkkaarloo Canada. effectivement Nicolas ni nga ko waxee premier match bi mu ngi nekkoon 54 points démb 13 points la woon. ñu xam ne Sénégalais yi démb maanaam dañu nekk si benn maanaam vitesse benn vitesse boo xamante ne fa peut mais xëy na suba dinañ si am lu leer parce que demee ñu ngi nekk a équipe yi nga xamante ne moo di Canada Canada tamit deux défaites la am comme Sénégal kon ñoom ñaar dañu xëccoo parce que Sénégal suba bu joué bu joué moo nga xam Canada boo xam ne gagné Canada mën na ko mu bokk ci maanaam qualification JO yi nga xamante ne moom la ñu war a amal fële ca mais euh, quand même euh, les Lions n'ont pas démérité ils mm-hmm. féliciter avec bi euh, jot na am yenn sénégalais yoo xamante jot nañu dem ci yeneen i équipe mais aussi ñu wax wàllum transfert ñu gis ne euh, ki nga xamante mooy Idrissa Gana Gueye moo euh, mhm. parce que Sénégal ñi am na sénégalais yu bari yoo xamante kenn xamul leen dem nañ ci ay club yu ndaw ñi mais ñi nga xamante jot nañ leen xam sénégalais xam nañ bu baax baax nga xam bu ñu leen bu ñu ne kii la ki nga xamante ne di Mbaye Diagne mu ngi jógee fi nga xamante u ñoom ñoo bokk fi nga xamante ne di équipe bi mhm. mais kii di Mbaye Diagne euh, maanaam dem na Bruges de Bruges bi nga xamante ne euh, la nekkoon mais ñoom ñoo bokk maanaam poule ci wàllum Ligue des champions a euh, yi mais ki nga xamante tamit di Ismaïla jóge na fii di Rennes dem fi nga xamante ne di Angleterre fële ca Watford moom joué

xamante ne moo di Gana Gueye comme ni nga waxee rek moom moo ci gën a fës ci hmm. transfert yi noonu très bien donc bu ñu jeexalee ñu dem ci nawetaan ku jeexal ah, Sadio Mané bi Sadio Mané Sadio waaw nga dëgg waaw Sadio Mané waaw bëri woon semaine passée eh, mais comme ni nga ko rek euh, maanaam euh, lu fees bu lu fees bu rembetee rek day tuur daa mel ni Sadio Mané loolu moo ko dal parce que c'est pas la fois nag ki nga xamante moo di Mohamed Salah di def euh, maanaam jëf yi ni parce que li nga xam mooy mooy anglais seen supporter daaw def nañ ko daan nañ ko critique jënd ay bandool ne Salah pour mu jouer maanaam maanaam maanaam eh, collectif mais Salah même équipe nationale sax ko ci moom du doon lu chose defaat dafa bokk ci deretam très bien dafa bokk ci deretam kon Sadio Mané gën na xam boppam te xam na li koy xaar voilà donc léegi ñu comme xam nga université gars yi bi ne benn tract benn benn nekk Sadio bul passé ci Salah loolu la war a loolu la war a <laughs> jeex tàkk mu jeex tàkk très bien ñu jeexalee ak nawetaan très rapidement waaw nawetaan jëm jiwén ñi nga xamante ne mooy maanaam quart de finale jëm ci wàllum euh, euh, mooy phase nationale yi jiwén nañu kat instant ñu ngi waajal li nga xamante ne moo di ëllëg li jëm ci wàllum demi finale yi fële ca Louga di wax ne incha allah dinañ dem foofu noonu pour mais dañu bàyyi ba finale bi quoi parce que incha allah commencé yoo xamante ne mu nekk en boîte macha ba tourné 5 ba 6 ñu commencé diffuser li nga xamante na. yaa ngi <laughs> euh, comme euh, tous les matins euh, day ñëw di bokk ñun li nga xamante ne moom mooy ce matin c'est à nous donc ci chronique xamante ne moom la ñuy jox bu ko neexee mu ñëw lundi bu ko neexee mu ñëw mardi bu ko ñëwee moom daal. c'est Babou Ndour donc Ndour la san euh, donc ñu ngi koy sargal bu baax en ñu ngi lay féliciter ci liggéey bu am solo bi ñu jeexale ak di xaar du ma ko def yaaw du ma ko jeex bi day du ma ko def dama la jox non non non s'il vous plaît non non non du ma ko def amul commentaire s'il vous plaît euh, <laughs> euh, di ñu ñëw ci ci musique sénégalaise nga wax ma sa placement ci musique sénégalaise sénégalais c'est-à-dire est-ce que di di loolu léeg-léeg di def is back di def comeback est-ce que loolu arrangé na la ci sa carrière parce que tantôt ñu gis la nga jëngal yëngal yëngal après tantôt ñu jéeg-jéeg gis la nga dellu ginnaaw loolu moo koy expliqué benn yoon rek lañ ma gis mooy bi ma ñëwee ci euh, Bouba Ndour bi may indee. ci compagnie non mais après bàyyi nag tamit bàyyi directeur ba jàmbur wuy ma. dañuy wax ci sa carrière sénégalais pour mu leer sénégalais boobu lañ ma gis ma dem Gambie après gisatuñ ma ma ñëw. mais après ñëwaat invité waat la ci benn télévision itam ñu waxtaan nag. def ay affaire mais après ñu ngi may ah, gis. waaw xëy na yaa ma yow yaa ma ma follow man mii waaw. <laughs> ah bon kon la laa def nii fi mu toll lu ma def nii lu mu tudd unfollow mm. xam na. très bien donc ñu mais bi yaa demul si sama page Facebook. d' accord di xaa ci lu mu nekk mais gars yi maa ngi ci kawam. dañuy wax ne di xaa dafay yëngu ci wàllum commerce. waaw. est ce que def musique ak commerce ànd na. ànd na of course. Ah, ah. Ah, parce que dañuy wax musique dafa fiir. dégg la musique dafa fiir waaye ci beneen côté bi mais jotewu dara ak commerce bi artistes yi gën a mag euh, mm-hmm. états ñoom Jay-Z dañuy commerce. d'accord mm-hmm. waaw mais est-ce que bàyyi ñu ba nekk ci benn niveau bi pour doog commerce te commerce bi ñuy def yëpp ci musique bi lañ koy def. aussi su la indilee un million jëlal beneen cinq cent mille bi nga dugal ko ci. am foo bi seen cinq cent euh, yi dem nga boobu nga koy. affaire lu nekk plan la daal. because musique dafay def nii def nii. très message. ban ban message la mën a jàpp ci morceau bi nga xamante ne moom nga indi nga ne ñi euh, dañuy wax naka su dul kalante gi daf doon loo xamee euh, xale jigéen yi lu ñuy dund la dafa bëri ah ñu dund ko man tam ko soo ma def ko son mu génn. en ah, naay ko ah, def rek. ah déedéet eh, eh, eh, defuma la dara lu mu def waaw yow man yow far la la ko def yow lii lu ko lijjanti léegi ñu ne xëy na guñ yow seq guñ ko de waaw yow lii loolu yow ma bëgg laa xam ni waaye li def. <laughs> non sample lay joxe. d' accord waaw sample lay <laughs> joxe. très bien waaw. soo ma def ko vidéo mu génn nit yi like nañ ko. Mhm. ci promo boobu laa nekk. ñan nga ci liggéeyal comme ay instrumentiste ay musicien ñan nga ci àndal. Hakim moo def song bi. d' Kora euh, bi euh, euh, Sadio moo ko def. Mhm. vidéo bi Asma Ousma Fred bu baax boobu moo ko def. moom moo ko def ak man. vidéo boobu moom la ñuy jeexalee sax incha allah. waaw très bien léegi nag docteur s'il vous plaît. fii kër gi dafa am yoon guñ ko tëralee te yoon boobu man bëgguma ñu ma ciy kii wi ma une minute nga am s'il vous plaît pour tontu question bi nga xamante ne moom la la mujj posé nga tontu ko ñu tëj s'il vous plaît dama la ko ah, ñaan non amul Sadio Mané boo waxee Sadio Mané tontu question s'il vous plaît acca ñu dem question bi lan la woon ah, waaw mooy li Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo voilà ci chef de l'opposition deux milliards vous en pensez quoi une minute pour man tegul fenn daal xam nga li ko waral mooy joxul cër sax déjà euh, statut chef de l'opposition man loolu laay njëkk a wax li ko waral mooy boo fàttali ko dañ ko dugal sax ci constitution bi. Mhm. bi ñuy. 2016 du du 2016. Mhm. mais loolu kon am na solo. Mhm. kon daanaka institution la. d'accord nan lañ ko war a gisee. léegi ban institution ci fi nekk. 30 moo am budget bu bu bu bu lool lool. ndax. cër bañ ko jox ak liggéey ba mu war a def vraiment loolu moo tax man rafetlu ma li mu wax mooy benn aspect ñaar bi wax nañ léegi ne logique logique bu benn parti amatu fi ay alliés ñooy am yow boo nekkee ci sa parti nga nekk éventuellement chef de l'opposition te sur des bases objectives am na ko wax léegi def naa lancé yow la ci début bi ci lañ ko nar a tànne muy chef de l'opposition hmm. di am ay alliés di nga am ci coalition boo bokk très bien xanaa naruloo solidaire jërëjëf ci jàppalante ak ñooñu xanaa kon. merci di la gërëm bu a baax ah, mu nekkoon docteur Macoumba Diouf di directeur de l'horticulture di en même temps euh, maire bu Latmingué bokk ci euh, parti au pouvoir mu di APR donc ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax euh, dafa nekk koo xamante ne man maa ko bëggal sama bopp waaye lakkal ko lool lool lool suñu plateau yi ñu mës a def yëpp nii laa koy def parce que dama xam ban xeetu nit la donc ñu ngi koy sant di ko gërëm gërëm bu baax mu nekk koo xamante ne liggéey rek moom moo ko tax a jóg euh, maa ngi lay sant di la gërëm bu baax Ndiawa rendez-vous mercredi prochain euh, toujours dans la chronique culture tey nga indi loon ñu Ambroise Gomis Ambroise en 20 looy tàggatoo très rapidement. bon sant Ndiawar sant grand remercier ma maman ainsi que tout le monde. très bien merci beaucoup di xaar le mot la fin lan ngay tàggoo. Ah, xanaa di wax sénégalais seen doom la comme ni nga ko waxee di xaar Tamba la juddoo ndax am na ñoo xam ne ñu naan waaye da nga bàyyi Gambie ñoo toog Sénégal lu tax toogloo Gambie di xaar xëj naa Sénégal xëj naa Gambie. parce mhm. que doomi Sénégambien la te sama mhm. talent du nekkul pour Gambie rek. pour mhm. àdduna bi yëpp la. très bien soo di leen di leen jaajëfal di nuyu sama waa kër waa Tamba ak sama ménageur Amadou di la gërëm yow si invitation bi. di gërëm borom télé bi di gërëm ñëpp. di leen wax ne nañ bàyyi xel maa ngi ñëw ak yeneen yeneen. waaw en tout cas tu es magnifique macha allah ñi lay ñaanal bonne continuation. beaucoup de succès ci li nga xamante ne moom ngay liggéey di sant di gërëm bu baax ñi nga xamante ne ndax. Euh, waa Mali ñoom ñuy seetaan euh, Félix euh, Fefsi Félix ak Rachid ñoom ñëpp ñoo ngi ñuy seetaan ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Fall ñoo ngi leen di jaajëfal waa vision en parallèle donc Cheikh Fall maa ngi koy ziar bu baax a baax ak Félix ak ki nga xamante ne mooy Rachid ñoo ngi leen di sargal nax ñoo ngi seetaan émission bi di ko rafetlu depuis Mali tey nag Kumba Yadd Kumba Yadd mooy chéri imam ku wax imam di wax wàllum vidéo sur la 2STV Kumba Yadd tey mooy anniversaire am muy chéri imam succès et beaucoup d'argent euh, sunu borom gën a boole ak borom kër gi mu di imam euh, yàlla may leen njaboot ju barkeel njaboot ju am diine bu am sutura bu am yar am teggin ndax imam euh, référence la ci liggéey bi te suñu grand la bu am maana ñu ngi koy sargal bu baax ku ma yàdd tey yow yaa aye kon boog boo aye dañ lay wax diggante ceebu jën suppu kànja maafe dooma daa lu mu ci munti doon ñu ngi lay wax bon appétit happy birthday to you merci encore une fois à tous les fidèles téléspectateurs de la 2STV rendez-vous demain avec